télévision Walfadjri yi mbokke xarit yi ñi ngi amaat ak mbégte di ànd ak yéen ci seen émission balance di ndokkeel mbooleem sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak waa bitim réew di ndekkal bu baax a baax euh, mbooleem jullit ñi nga xamante ni ñi ngi ci biir réew mi ak waa bitim réew rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon célébrer euh, mawlud nabi bi nga xamante ni moom la ñu doon amal ci euh, jeudi bii ñu weesu di ndekkal bu baax a baax a baax communauté musulmane bi nga xamante ni ñi ngi ko doon célébrer fii ci biir réew ak waa bitim réew plus précisément suñu mbokk tijaan yi nga xamante ne ak toutes les branches de la tijaaniya yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal muy waa Tiwaawan muy waa Kaolack muy waa Cenaba ak tamit euh, yeneen gox-goxaat yi nga xamante ne fépp fu ci réew mi rek ñi ngi doon màggal guddi guddib rasulilaay moo xam ci Saint-Louis la wala ca Touba wala tamit ak diiwaan ak gox yu uute ci biir réew mi di ndokkeel bu baax a baax di ñaan lépp loo xamante ne dëgmal nañ ko ci suñu borom nangul ñu ko di ñaan tamit euh, njaasaan bi nga xamante ne ñu ngi ma koy dëgmal ci ginnaaw suba bi ñu dem ci ak jàmm suñu borom may ñu ci ndam mbokk yi comme niñ ko daal di defee su nekk rek comme ni ngeen ko xamee émission balance c'est l'émission qui apprend la loi et la justice émission bi waxtaane lu jëm ci wàllub yoon tey jii nag li nga xamante ni moom la ñu fas yéene waxtaane umpale ne dañu nekk ci contexte bu xaw a particulier mu yemoo ak li nga xamante ni moom mooy ouverture des classes waral kon ñu fas yéene waxtaane lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum euh, droit de la famille daanaka tey dañuy xaw a comme ni ko mbokk yi di sàkkoo tuuti ñu xaw dugg ci droit civil bi xaw a noppalu tuuti ci droit pénal bi donc looloo waral tey jii ne ñu fas yéene dugg ci li nga xamante ni moom mooy état civil waxtaane ko faram fàcce ko bu baax a baax jotaayu tey bi wàll gi nga xamante ni moom lañ ciy jël mooy lu jëm ci wàllum acte de naissance lu jëm ci wàllum këyitu judd yi lan mooy jafe-jafe yi nga xamante ne nit ñi dinañ ko ci jànkonteel ak jafe-jafe bu ci nekk rek ban saafara lañ ci war a indi xale bu juddoo ci ñaata temps lañ ko war a déclarer kan moo war a dem def déclaration fan lañ ko war a déclarer lan mooy délai bi nga xam ne moom la ñu respecté bu délai bu weesoo ba ban yoon nga mën a jaar pour régulariser xale bu juddoo ci juddoowul ci buum kan moo ko war a déclarer ak ci yan anam lañ ko war a déclarer lu jëm ci wàllum adopté xale ana fan lañ koy defee naka lañ koy defee ak ci yan anam lañ koy defee erreur boo xamante ne dafa am ci kayitu juddu naka lañ koy soppee koo xamante ne kayitu juddu bañ ko defaloon baaxul mu dem ba ci biir am ci yeneen kayit am ci carte d'identité am ci passeport am ci ay diplôme naka lay jaar ba mën a régulariser mbir mi donc ce sera autour de toutes ces questions là ñu fas yéene ko leeral bu baax a baax ànd ceeg suñu invité tey jii nag moom yaakaar naa ni on assiste une féminisation du plateau de Balance euh, Fama Dieng nekk juriste nekk spécialiste également droit de la famille mooy suñu invité fas yéene inim fàcce ci toutes les préoccupations yoo xamante concerne état civil bi ñuy waxtaane particulièrement les actes de naissance maître ñu ngi lay nuyu di la dalal di la dalalaat merci beaucoup Pape maa ngi lay fay bu baax a baax euh, di la nuyu di la jaajëfal comme ni nga ko waxee rek kontaan naa lool dellu siwaat ci plateau balance. Mhm. fii moom defe naa léegi sama kër la. di nuyu sama chroniqueuse yu ñaaw lii ma bokkal plateau bi. di nuyu techniciens yi ma bokkal également yi ma fekk ci Walfadjri di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp à travers le monde. Euh, di ndokkeel aussi euh, tout la communauté musulmane ci gàmmu gi nga xam ne ci lañ jógee. di ñaan yàlla lépp luñ ci ñaan ci guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal ñu ko ñu mu nekk euh, lu lu lu lu lu am naataange ci Sénégal. Mm-hmm. ubbil ñu buntu xéewal euh, buntu yiw jàmm sax ci Sénégal. Mm-hmm. Euh, tey prétexte bi nag ñu waxtaanee état civil ñuy xalaat aussi ne ñu ngi ci ouverture des classes. donc dina am solo trop ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy acte de naissance. Mhm. ndax gis nañ ne ouverture de classe bu jotee dañuy gën a am problème pour xale yi nga xam ne war a jàngi ñu am li ñuy wax kayitu juddu. donc defe naa li ñuy waxtaanee tey dina am solo lool. di mhm. souhaiter également une bonne rentrée. Mhm. à tous les professeurs tous les enseignants tous les élèves également. merci beaucoup. jërëjëf donc ñu ñëw léegi nii comme niñ ko baaxoo di def rek mbokk yi euh, tey euh, rubrique leçon du jour li ñuy waxtaanee tey jii nii mooy lu jëm ci wàllum inceste. les dossiers judiciaires actualité judiciaire comme ni ngeen ko baaxoo di def ak Fatoumata Kiré teew na ci plateau bi également dina leen ko faram fàccee mhm. euh, Pape Moussa également mi ngi ci yoon bi dina yegg si léegi rejoindre ñu euh, l'éternel retardataire dina yegg léegi ni mhm. euh, seen rubrique prison tey moom dafay jéggalu Mame Khady Diéry Fall également teew na ci plateau bi ngir laaj ak tontu yi nga xamante jëm na ci invité bi waaye tamit question yi nga xam ne ak laaj yi nga xam ne tukkee na ci internet yi ndax yéen ñi ñu seetaan di ñu bàyyi xel également ci waxtaan wi ngeen bokk donc euh, sans plus dañuy daal di jublu rek ci li nga xamante ni moom mooy euh, tàmbale bi comme ni ko baaxoo di def leçon du jour li ñu fas yéene waxtaane tey mooy inceste lu jëm ci wàllum inceste donc dañuy njëkk a bàyyi invité bi mu defal defal ñu définition des concepts wax ñu inceste bi nga xamante ni ñu bëri dañ koy dégg te xamuñu lu muy tekki lan mooy inceste Euh, merci beaucoup Pape par rapport ak leçon du jour bi euh, lii inceste li tax ma indi tey leçon du jour inceste dafa fekk ne ñun ci suñu wàllu liggéey dañuy rencontrer beaucoup de femmes ay filles parfois de basage âge yoo xam ne dañuy dañu leen di sàkku li ci ëpp nag sàkku boobu li tax ñu koy woowee inceste mooy dafa nekk ne ci leen sàkku dafa nekk parent ci ñoom maanaam mu nekk papa mu nekk frère mu nekk koo xam ne dafa dafa dafay sëy ak sa yaay maanaam sa parent adoptif comme niñ koy faral di wooy père adoptif mu nekk koo xam ne daal sa frère sax dañuy assister à ça sa frère donc mu nekk la relation boo xam ne dafa jege. Mhm. dafa jege ci wàllum euh, ci wàllum deret mhm. mais également li ñuy wax parenté par alliance ci wàllum sëy moom laa wax léegi ki nga xam ne moom moo ñëw takk sa yaay xëy na bokk leen dara ci wàllum deret mais dangeen bokk parce que dafa am une relation d'alliance loolu la ñuy wax relation d'alliance donc fu seq boobu su amee situation boobu la ñuy wax inceste mhm. inceste nag dafa nekk dafa dafa dafa nekk loo xam ne li tax ma gën ko indi loo xam dafa nekk ci société bi mais dafa nekk sujet tabou sujet tabou la boo xam ne duñ ko duñ ko bëgg fësal ndax ki nga xam ne sa papa moom la sàkk wala sa frère wala sa oncle day nekk loo xam ne le plus souvent dañ koy nëpp nëppal ci biir famille bi. ok kon kon daal inceste mooy viol bi nga xam ne. sa mhm. mbokk moo la koy def sa jegeñaale. waaw mën na mën nañ ko définir ne viol parce que bu ñu xoolee ci code pénal bi définir ko mais également amul sanction. Mhm. li ci ëpp rek juge bi daf koy qualifier de viol aggravé. Mm-hmm. parce que ki nga xam ne moom moo la sàkk comme li ma wax noonu mën nañ na viol la parce que parfois la la plupart du am consentement mën nañ na viol la mais viol bi lii différence à la place liy différence bi ak viol mooy bii ki la sàkku mooy sa parent la mm-hmm. parfois aussi dañuy assister euh, ci euh, inceste boo xam ne li plus souvent ay adulte la mais mën na am consentement mais ba tey li tax ñu koy wax inceste mooy même consentement maanaam ku jigéen ki mën na ci d'accord mën na ci d'accord parce que am na quelque benn cas si cas yoo xam ne euh, gis naa ne ku jigéen ki elle était consentante bien que inceste la mais nag li tax ñu koy tuddee inceste foofu lay gën a insister mooy ki nga xam ne moom mooy auteur bi moom mooy sa parent maanaam ngeen bokk deret te le code de la famille en son article 110 dafay interdire dafay wax euh, sur les conditions de formation du mariage. Mhm. dafay da wax li ñuy wax euh, l'absence de lien de parenté ou d'alliance maanaam foo xam ne fépp foo xam ne sëy mënu faa am rek tey bu fa relation boobu amee dañ koy tuddee inceste. tey bu nee absence de lien. Euh, de parenté maanaam koo xam ne yéen a bokk deret comme ni ma ko waxee léegi muy sa papa muy sa frère muy sa oncle yéen yéen a bokk deret mais koo xam ne aussi alliance mooy koo xam ne da ngeen lié par les lie du mariage lien du mariage aussi loolu dañ koy dàq ci ci ci ci ci ci mariage. Mm-hmm. donc fépp foo xam ne dañ fa dàq sëy rek tey bu fa séq amee loolu la ñuy woowee inceste. d'accord même bu dee consentement loolu la ñuy woowee inceste. léegi nag li tax li tax li tax mu li tax mu am solo ñu waxtaanee ko dafa nekk comme ni ma ko waxee si sujet tabou mais non seulement dafa nekk sujet tabou mais dafa nekk loo xam ne dañ koy nëpp nëppal ci biir kër yi mu ne dafa nekk di ronger société bi. petit am na ñoo xamante ne nëpp nëppal fi ñu ko teg boo waxee ñu ne dañuy bëgg bañ a euh, yàq àdduna xale bi parce que suba mën na màgg doon kilifa ci réew mi ak yooyu noonu bëggul après ñu koy génne watal histoire boobu noonu donc le fait que ñu jël en compte mhm. intérêt ak avenir xale bi mhm. est-ce que loolu mën na justifier nëpp nëppal non pour man mënul justifier nëpp nëppal parce que li ñu naan lu dul yàgg du dëgg c'est ça le problème xale boobu tey bu juddoo mën na am benn mère bu nekk ci mère bu nekk ci koñ bi moo ko koy wax ne ko yow diw mooy sa papa diw mooy sa papa sa papa mooy sa maam wala sa papa mooy sa nijaayu yaay wala sa papa mooy sa frère yaay donc nëpp nëppal bi pour man loolu du solution. ok parce que li li nga wax sax boobu c'est un cas mais parfois dañu naan dañuy bañ a tas famille bi non seulement xale bi kenn du ko xalaat de la plupart. mm mais dañu naan dañuy bañ a tas famille bi dañuy suturaal nit kii dañuy bañ mu dem à la justice xam nga famille bi am euh, ñu génnee ko weer ko ci mbedd bi comme ni ñu koy waxee mais euh, tey pour man conséquences yi la ñu war a gën a xalaat parce que tey famille boobu am loolu déjà famille bi moom la plupart des tas benn mhm. deuxièmement li ci ëpp mën nañ ci assister à des cas de divorce cas de divorce dañ ciy jël yoo xam ne boo creuser bu ci suuf euh, souvent loolu mën na nekk cas de divorce ñu am nañ ci ay cas yoo xam ne kooku moo jur xale bi mais la même euh, mënoo comprendre que ni papam moo def lii doomam loolu c'est parfois xel du ko nangu daal mais quand même c'est vrai. ok aussi mooy euh, xale boobu tey comme ni nga ko waxee duñ ko xalaat mais conséquence conséquence bi mooy ki nga xam ne mooy ku jigéen ki tey porter grossesse boobu mën na ci déjà un tenter avortement. te avortement boobu c'est banni par la loi sénégalaise buñ la ci jàppee une peine de prison t'attend mhm. parce que l'avortement n'est pas permis par la législation sénégalaise di ko yàq di ko yàq loi da koy tere waaw mooy mhm. interruption de de de l'IVG ba pare di ko yàq loolu loi da koy tere déjà boobu mën na nga ci am problème non seulement problème sanitaire mais également problème avec la justice deuxièmement bi mooy tey bu xale boobu supporter grossesse boobu dem ba accoucher le plus souvent li ñuy wax infanticide maanaam jur doom rey ko day day nekkaal beneen conséquence te la plupart des femmes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk tey camp am na ci jeune fille yu bëri yoo xam ne infanticide moo leen dugal tey prison infanticide boobu nag li ci li ci li ci ëpp infanticide bi day nekk cas de viol wala mu nekk cas d'inceste nga ne man kat diw moo ma sàkku grossesse bi doom ji bugguma ko gis bugguma ko téye bugguma en fait je cautionne pas l'infanticide mais mhm. damay wax les conséquences yu mu mën a indi waaw damay wax les conséquences humaines pour nit ñi mm. bàyyi ci xel ba nga xam ne tey bu inceste bu amee ñu war a mën a xool les voies et yi nga xam ne yoon teg na ko fi pour ñu mën ko pour ñu mën ko def mm. mais avant inceste boobu di am mm-hmm. tey il va falloir une sensibilisation auprès des communautés parce que man tey mënuma comprendre nit jur doom ba pare di ko def loolu man man bokk sama sama man sama bien que dama koy dama ci dama koy jànkonteel dans le cadre de mon mm. la famille moom lu nekk ngay gis mais xel day am man j'ai j'ai j'ai de parler de, de l'inceste parce mhm. que c'est un cas boo xam ne man j'arrive pas à comprendre bien que je suis juriste saa yu ma du ma ne saa yu ma xëyee parce que ça se passe pas tous les jours mais dama koy gis fréquemment. jur doom sàkk ko jur doom ko te man loolu mënuma ko comprendre donc loolu moom moo tax ma ne tey leçon du jour vraiment bëggoon naa ñu bàyyi xel ci cas d'inceste yooyu. Mhm. ak conséquences yi nga xam ne moom laa fi énuméré léegi. Mhm. li li waaw allez-y allez non euh, parce que moom muy naan mënu ko comprendre est-ce que mhm. ci cas yi ngeen di am euh, du ngeen di def beneen piste mooy suivi psychologique. Mhm. genre xam le pourquoi. Euh, mhm. su parent bi def noonu est-ce que ànd naag sagoom et tout ça. effectivement dañuy def lu suivi psychologique. pour la fille parce que loolu c'est important. parce que nit ki nga xam ne non seulement même lu inceste le viol seulement sax. il faut le suivi psychologique ça moom parfois da nga ciy jëlee ay traumatismes sa impératif ça. mais euh, juste pour ma nettali la benn anecdote du anecdote sax parce que vous en tant que chroniqueur wala journaliste vous mhm. devez être au courant de ces faits il y ay un an deux ans de cela cas d'inceste boobu amoon na fii dans la banlieue le le gars bi ñu defee le suivi pour laaj ko lan moo tax mu def loolu xam nga lu mu wax mhm. que ne moom maraboom moo ko ne il faut mu tëdd mu ngeen baal ma ci terme mu sàkku xale boo xam ne dafa vierge wala mu rey jabaram pour s'enrichir d'après les explications c'est ça mais loolu fan nga ko mën a teg. Hmm. Hmm. ci bànneexu bakkan ci bànneexu bakkan nga ko mën a teg. Hmm. donc c'est un c'est un exemple pour te, pour juste te dire que ne. Euh, dinañu dem parfois pour mën a comprendre le fait. juste c'est juste un exemple mais am na leneen lan am na ñoo xam ne bon psychologiquement seen xel. ils ne sont pas stables. seen seen xel. parfois euh, seen seen seen libido daf leen di yóbbu ba ci loolu noonu. ci aussi dañu dañu nekk ci dëkk boo xam ne on est on est on est à on est un pays vraiment pauvre parfois promis promiscuité bi dans les maisons aussi dafay dafay dafay justifier yenn yenn yenn actes yi mais man pour man quel soit quelque soit acte quelque soit alpha quel que soit les raisons quelles que soient les raisons pour man loolu warul mën a justifier nga jur mhm. doom ba pare di ko sàkk di ko di ko sàkk mais ñi def loolu lan moo leen ci mën a fekk ci wàllub yoon ak tamit ndax daan bi bu fekkente ne ki nga ko def majeur la wala mineur mhm. également ndax daan bi day day day yem d'accord may préciser aussi que li taxaat ma li tax ma euh, indiwaat la question sur euh, sur euh, sur la table def ko leçon du jour aussi bokk na ci daan yooyu nga évoqué parce que le code pénal expressément waxul ne inceste lii mooy daan bi ça n'est pas code pénal mais le plus souvent le juge daf koy interpréter qualifier ko soit de viol parce que viol c'est c'est puni par la par la loi par le code pénal mm -hmm. soit à la pudeur soit de pédophilie mais c'est des circonstances euh, inceste bi ça, euh, ça devient une circonstance aggravante du viol mm -hmm. parce que tey dañu ne pour les circonstances aggravantes du viol dañu ne ki nga xam ne moom moo la war a yiir ki nga xam ne moom moo am autorité ci yow war la sàmm sàmm tey bu bu tourner di la sàkku kooku tey dafay nekk une circonstance aggravante donc man euh, en tant que juriste aussi foofu noonu je pense que le code euh, pénal war na mën a revoiraat sur le cas d'inceste mhm. mu am benn peine boo xam ne uniquement c'est sur le cas d'inceste mais le plus souvent dañ ko le juge da koy interpréter mu requalifier ko de comme comme j'ai de viol d'attentat à la pudeur de hmm. pédophilie mmh. donc est-ce que kon dugg na ci cadre criminalisation parce que viol dañ ko criminaliser bien ah, sûr bien criminalisé maintenant. ok et okay. ça wow. rentre également dans le cadre de la criminalisation parce que quand le viol est agra euh, euh rencontre des circonstances aggravantes ça devient également un un un, un crime donc tey. Mhm. mën nañu wax ne ça rentre dans cette dans cette euh, dans cette. ok xam nga en matière de viol dañu lay wax ne la bu fekkente ne ki nga ko seqal majeur la bu amee consentement maanaam bu ci d'accordoon. Mhm. viol amu fa. Mhm. li ma fàttee li ma fàttee wax également mooy le le juge même peut aller euh, jusqu'à qualifier d'acte contre nature. parce que suñu nee papa ak yaay ak papa ak doom autant pour moi tey mun ko qualifier mun na ko qualifier d' acte contre nature mm-hmm. et cet acte contre nature également est puni par la par la par la par la loi donc pour revenir à te pour leeral acte contre nature mooy délit bi bi dal ci kaw bi sanctionné di condamné góor jigéen effectivement mun na mun na mun nañ ko qualifier parce que man j'ai assisté à des séances de de de de de de au niveau du tribunal boo xam ne le juge daf d' acte contre nature donc euh, n'est pas puni par la par par par, par la loi déjà ñun si suñu si suñu si suñu langage même euh, suñu langage juridique wala suñu langage au niveau au niveau des tribunaux wala suñu langage au niveau de la société. tey inceste sax nit ñi boo leen ko laajee xamuñu xamuñu xamuñu lan mooy. inceste mais quand même c' est un fait boo xam ne c' est réel et que dans la société et mu ngi détruire famille en silence nag kenn du ko wax. parce que kenn du ko dénoncer malheureusement. waaw mais respect. mais respect partagé. waaw très réciproque même. xam naa ne moom euh, léegi ñu kii ma. baal commencé jël ay yat ci man. noonu ah. non xam xam naa madame Sow muy yëpp ci pare reer rek. garaawul <laughs> dinañ comprendre en tout cas baa ngi lay euh, nuyu bu baax euh, di fekk vraiment. débat très intéressant ci évité euh, euh, bi di mu doon développé am na solo lool. Mhm. di nuyu maam xari di nuyu sama xarit Fatima Kide gis naa ko gis moom it daa dugg ci suuf tunnel yi. Mhm. di nuyu sénégalais yi ñuy gàmm gi la woon gàmm gi la. waaw ah, moom bu paree ci gàmm màggal après gàmmuwaat xanaa <laughs> day demaat. donc di nuyu sénégalais yëpp tamit euh, mhm. effectivement ci li ma leen fekk ci débat leçon du jour bi am na am na solo te je pense que ni faram fàccee nañ ko carrément. Euh, seulement euh, man amoon naa ci sax surtout euh, féministes yi nga xam xam nga ñoom dañoo yenn combat boobu. <laughs> bon ce n'est pas une question de genre mais criminalisation bi da ngeen ko doon xeex. après que définition mu am ay hauts et des bas parce que il y a eu une évolution aussi ci définition bi ci boppam. Mhm. bu njëkk ba dañ doon wax rek tout acte de pénétration noonu kese lañ ko doon waxee mais il y a eu des faits yu tax mu indi évolution ci définition bi. Mhm. parce que da nga doon gis ay actes yoo xamante ne très condamnable mais qui n'entrait pas dans le coup de la définition légale te doo mën a condamner nit ki. da doon da doon am parce que boo nee tout acte de pénétration ben ça devient vague. boobu de quelque nature qu'il soit mais commis sur la personne détruite yooyu yëpp ñëwagul woon. voilà parce que yooyu yëpp li ko andi. ay pratique la ay fee la. ay fee la yoo xamante ne da ngay gis. Mhm. Euh, par exemple euh, acte de bu nekkul sexuel. mm te boobaa mënoo ko qualifier bu yow et pourtant euh, mën na leen objet mais sans consentement bu mm-hmm. waaye donc kon euh, évolution ci définition bi ak criminalisation bi pratiquement qui trop embrasse mal étreint mm. est demul ba ñoom yéen ci seen bopp yi doon yor xeex ba mu faf leen réeral ci biir. <laughs> Euh, non non en fait du du réerul par rapport à par rapport à ce que vous venez de dire il pas une. Euh, un amalgame par rapport à ça déjà je rappelle juste que le viol euh, c'est la loi 99 bi nga xam ne moo modifié la le code pénal en son article 320 euh, dafa ne tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit par contrainte par menace ou par surprise donc lépp loo xam ne def nga ko nit ci awraam loo xam ne moom consentirul consentirul euh, euh, wala nga bett ko wala nga menacé ko nga tiital ko loolu la ñuy woowee viol mm-hmm. loolu la code pénal waxoon maintenant quand on revient par rapport à la criminalisation criminalisation bi wàññiwul dafa yokk rek dafa yokk par rapport à la peine mm-hmm. yokk par rapport aux circonstances aggravantes la pen dafa nekkoon de 5 à dix ans tey mu ne mu criminaliser ko yóbbu ko de mais est-ce que yóbbu ko de 10 procédure bi maintenant ba ba ba ba condamnation yi ngeen ci doon xaar mu xaw a wàññeeku xam nga bi daf ci yàgg xëy féministe yi far yàlla natt ko nag ñu am benn féministe mu taseeg tey kii non ah, en fait man je woote criminaliser crime mais après on se rend que est-ce que criminaliser bi ador euh, alourdirul procédure non pour man alourdirul euh, alourdirul la procédure en tant que telle hmm. parce que bon xam nga vingt temps moom koo koy tëj il va falloir nga xam mu wóor la ne ce fait là am na hmm. donc loolu ngay wax peut-être alourdir la procédure hmm. alourdir la procédure c'est juste des enquêtes avec une il faut une instruction parce que ñu on est en en en en matière criminelle hmm. loolu c'est normal c'est la procédure judiciaire donc pour man tey crime est-ce que la la procédure de de d'un crime quelconque est alourdie. non parce que l'instruction n'a pas. waaw ouais, l'instruction c'est la procédure judiciaire normale est-ce que du woon c'est la juridiction de détention provisoire en matière criminelle ñu fixé ñu limité ko comme ñu ko defee pour délit solution bi doon doon loolu en fait mënoon nañ ko jàpp ci délit détention provisoire xam nga si c'est en matière de délit six mois la sauf pour le délit de détournement de public léegi si c'est en matière criminelle est-ce que bu ñu ko fixé woon mm-hmm. limité ko du régler problème bi muy soulever nii par exemple non pour man Pape Moussa pour euh, soulever wul un problème quelque quelque un problème en fait un problème aussi difficile quoi en fait non mm-hmm. non parce que moom li muy xalaat mooy l'instruction okay. le temps que l'instruction prend moom laa ko wax ma ne ko en matière criminelle l'instruction c'est la procédure normale okay. quand on en matière de de de de viol également qui est criminalisé c'est normal que la la procédure suit son cours pour man alourdirul la procédure parce que même en matière bi mu nekkee crime c'était la procédure dañ doon suivre da doon am da doon am mais mën nga mën na nekk délit ba pare ñu yokk ñu yokk peine bi <laughs> parce que xoolal bi euh, léegi euh, trafic de euh, drogue crime Euh, terrorisme waaw vol de bétail vol de bétail c'est-à-dire il a une criminalisation à outrance alors que criminalisation avant sanction yi da gën a gaaw. mais mais nag parfois acteurs yi ñoom seen bopp ñoo koy demandé par exemple pour vol de bétail mooy sàccum jur bi ñoom ñoom ñoom yi seen bopp ñoom ñoo demoon ba affaire phénomène bi sonal leen ñoom ñu sàkk ko état fekk si leen ci loolu jàppale la. mais est-ce euh, ci viol ñi ñu ci daan. Mm. après la criminalisation. Mm. est que ñoo avant. Euh, mënuñu def statistique yi ngay wax nii parce que bi ñu criminaliser viol yàggul ça fait juste un un un deux ans je veux dire mmh. normalement. Euh, la loi de deux mille décembre deux mille décembre deux mille vingt ça fait trois ans. donc mën nañu wax ne par exemple avant. Mmh. c'était c'était si lañ doon gën a condamné que léegi nii pour man la procédure et la procédure ça reste la même mais nag en matière de délit ak en matière de euh, crime les. les voies de recours et les procédures ne sont pas les mêmes loolu on est d'accord maintenant li muy wax ni acteurs yi ñoom ñoo koy demander c'est vrai le viol a été criminalisé parce que dafa am benn dafa am benn dafa am benn dafa benn contexte <laughs> dañu dañu dañu assister à plusieurs cas de meurtre suivi de viole cas de viole Euh, mën nga mën naa la citer le cas de Tambacounda le cas de Yeumbeul à la banlieue plusieurs faits qui se sont succédés mhm. ont fait que les faits bon ma wax sax féministe du wax sax féministe mais dama naan mhm. toutes les associations de femmes jar aussi ci ñi muy dal non non c'est-à-dire effectivement non euh, euh, man ma yeggali sama raisonnement mais efficacité moom mu am contexte boo xam ne foofu la association yi nga xam ne ñooy xeex ak yelleefu jigéen yëpp sukkandiku mhm. pour ne lii bu ñu ko bàyyee nii xamuñu fu muy jëm d'accord bien que dañu demander à ce que ñu criminaliser ko comme ni mu ko waxee acteurs yi demandé ko état bi fekk si leen si parce que c'est ça une nécessité en fait mm. ça une nécessité mm. ça un deuxièmement aussi comme li ma wax il faut ñu xalaat ñi nga xam ne moom ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy les victimes il faut que ñu xalaat ñi nga xam ne ñoom ñooy victime ñaata femme la ñu fi la ñu fi la ñu fi la ñu fi la ñu fi sàkku ba pare rey leen hmm. loolu tamit il faut ñu ñu ñu xoolaat loolu donc loolu moom moo indi par rapport lutte bi ngay wax c'est pas une question que dañu xëy rek bëgguñu criminel c'est vrai que ne la procédure comme j'ai dit je le répète la procédure criminelle est plus euh, difficile que la procédure euh, loolu bon c'est la voie judiciaire loolu on n'en disconvient même pas léegi nag l'autre ba l'autre l'autre kii parce que tu veux pas une mënoo bëgg leen ba pare bëgg une son contraire mm. mënoo ne nañ ko criminaliser alors que du jaar fi nga xam ne foofu la procédure criminelle war a war a jaar l'instruction entre autres donc mook délit mënul bokk c'est vrai que Euh, peine yi euh, temps bi muy jël dafay alourdir la procédure comme vous venez de le dire mais ça ça change à rien pour man la sanction devient la sanction et pour par rapport à la sanction mm -hmm. il faut vraiment sévir d' accord donc loolu rubrique la woon rek daanaka dugguñ sax ci waxtaanu bés bi comme ni ñu ko waxee woon donc euh, loolu moo doon solo su waxtaan bi nga xamante ne rubrique leçon du jour indi woon na ko di waxtaane inceste muy maanaam sàkk bi nga xamante ne mbokk moo koy def jigéen maanaam viol boo xamante ne mbokk Euh, ku jigéen ki moom moo ko koy def moo xam papaam la moo xam nijaayam la moo xam keneen ku mënti doon donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci leeral yi mhm. donc euh, sans plus balaa ñuy dugg ci li nga xamante ni moom mooy euh, le grand débat du jour dañuy ñëw rek ci actualité judiciaire bi Fatima Kide jukkil ñu les dossiers les grands dossiers judiciaires qui ont rythmé la semaine Fatima wala les dossiers de Fatima d'accord mhm. ah, ah, les dossiers de Fatima <laughs> dañu koy door nag bi la comme euh, nañu ko defee woon ci euh, màggal gi euh, gàmmu gi nag police génne na ab bilan ba nga xam ne fësal na ko lañ ci mën a jàpp rek pa bokk na mhm. ci ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom ñetti fukk ñett ña nga ne nag jot nañ leen ci diggante Kaolack Tivaouane di ay nit daal ya nga xam ne amaana la ñuy séentu wala sax ay càmbar naka la ñuy ak yoon woowulee lañ ci mën a jàpp rek bokk na ci am na ci ña nga xam ne nag yóbbu nañu leen parquet bokk na ci ñeent ki doomi aadama ak euh, ñaar mhm. ñoom nag waxtu bi euh, ñoo nga ca parquet ngir rek ñu càmbar seen i ay mbir leneen la xam ne nag mënees nañ ko jàpp ci bilan boobule 875 mhm. euh, doomi aadama ya nga xam ne nag teg nañu leen loxo ñenn ñi bokk na ci la ñu leen tegee loxo bokk na ci mbirum yàmba daal mhm. la ñu njortees ni loolu la ñu yoroon ba tax na takku der yi teg loxo leneen fanweeri daal ak ñaar Euh, yooyu enregistré nañ ko ci euh, bilan euh, boobu boobule gàmm wala sax gàmm bi nga xam ne moo fi amoon ñeenti junni takki der takku der ak juróom ñoom nag équipe bi boobule la ñu déployé ngir rek ñu saytu kaaraange askan wi. Mhm. ci gàmm gi. Euh, nañ leen tasaare nag bokk na ci diggante ci waawoon Canaba Touba Louga Saint-Louis ak euh, Thiès Pape. Mhm. leneen ña ñi nga xam ne nag jot nañ leen teg loxo ci euh, gàmmu gi rek ña nga vérification identité maanaam saytu fa ñu bokk wala sax seen identité bokk na rek ci deux cent trente et nit ña nga xam ne ci wàllum càcc nag. bokk na rek euh, ci cinquante 51 ya nga xam ne nag teg nañu leen loxo ci lu ñeel waarum euh, càcc mhm. ña nga xam ne nag seen ay mbir pap dañu njortees ne rek laaj na ab l'enquête euh, bokk na ci 46 nit ya nga xam ne nag nécessité d'enquête ndax mhm. seen ay mbir nag dafa soxla càmbar jëm ci mbirum l'enquête mbirum drogue nag jàpp nañ ci lu tollook 28 personnes mhm. ci leneen rek mbirum mandeek yu ni mel nag douze personnes hmm. teg nañu ci leen loxo mande ba pare di ah. <laughs> di def ay yëf ci mbedd mi hmm. <laughs> euh, leneen mbirum violence ak euh, yenn ya nga xam ne nag di ay détails yu ndaw ya nga xam ne dañ koy tere takk der yi di bëri ak ñoom xeex ak ñoom bañ a dem dëgërante boobu huit personnes lañu ci teg loxo ci li ñeel boobule gàmmu hmm. mbirum euh, gaz nag nag lañ ci teg loxo rek bokk na ci six personnes voilà <laughs> délit bi moo tudd usage de produit cellulosiques personnes lañ ci teg loxo mhm. mbirum euh, maanaam mbirum euh, maanaam euh, charlatanisme charlatanisme na ma koy tekkee rek sànq maam yi daf ma wax benn baat boo xam ne mhm. <laughs> dafa ma rëcci sëriñu tariyaax ndax ko dama bëri histoire ah, ah. charlatan maanaam mooy mooy sëriñ yi ndax nañu bu xaaba ak sëriñu tariyaax lu leen wutale histoire de da wax moom day tari taru lu may day yàq Ah, tariwul maanaam ñi ñii sëriñ sëriñu maanaam ñi profité di triande di triande kooku mooy buxaaba wala sëriñu tariyaax ah ay buxaaba daal lañ leen mën a tubbee ok ñeenti nit la ñu ci euh, teg loxo ci yooyu la ñi nga xam ne nag euh, amuñu permis mhm. euh, teg nañu leen loxo dawal te amuñu permis ñaari nit lañu mbirum yorum arme nag maanaam détention d'arme benn nit la ñu ti teg loxo. Mhm. ak euh, ñi yor arme it te amuñu autorisation pàppeek nañ ci benn nit. Mhm. donc arme blanche ñi am na ci ñoo xam ne arme blanche lañ leen jàppee am ci ñoo xam ni détention d'arme sans autorisation administrative mooy yi nga xamante ne amuñu ngànnaay mi ngi voilà donc yooyu mooy police yi nga xam donc mm. xanaa di jaajëfalaat bu baax a baax mm. la police sénégalaise ci liggéey bu am solo boobu nga xamante ne mm. interpellation yooyu nga xam ni def nañ ko à travers euh, gox goxaat yi nga xam ne ñi nga fa doon gàmm comme ni ñu koy waxee rek ñii gàmm ak ñii raas donc am na ci ñoo xam ne moom gàmm taxul leen woon a jóg moo tax police teg loxo lu toll ci 386 individus pour des délits aussi divers que variés voilà donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo waraloon mhm. ñu teg leen loxo ni ko police defee également mënees naa wax li nu mel ci gendarmerie également parce que lu jëm ci wàllum sécurité mhm. des populations et de leurs ñoom ñaar ñoo ko séddoo fii ci réew mi Fatima gërëm leen bu baax ñoom woy takku der yi rawatina police bilan bi am na solo mhm. ñu woy rek euh, dem ci leneen ci mbirum euh, mbëkk mi daal la ñuy àddu jëmale pap bu weesoo police ak gendarmerie bi la yoon nag marine nationale bu Sénégal na ci dak ay jéego yi nga xam ne jot nañu ko amal lañ ci mën a jàpp rek euh, bokk na ci mbirum xeex mbëkk bi euh, teg nañu ci euh, loxo na lu tolloog ci 605 doomi aadama yi nga xam ne nag dañu doon euh, jël mbëkk mi ngir rek dem ca Barça boobule mbir nag lañ ci mën a jàpp am na ci 44 yi nga xam ne ay jigéen lañ. Mhm. ak 33 doomi aadama yi nga xam ne nag ay ndaw lañ. Mhm. wala sax ay tout tànk lañ ñoom ñoo ñu teg nañu leen loxo mari nationale moo amal lu nu mel leneen sax ci mbirum mbëkk moomu le Pape des ndax nag dix ci weerum septembre bi ñu nekk mhm. euh, jot na am fii ci réewum Sénégal ngir rek euh, jëmale ci mbirum mbëkk moom bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien mu mel ni détenu politique yi également libération yi mi ngi continuer ba léegi mi ngoog euh, mi ngay wëy bàyyi ka nga xam ne nag nañu duppee ay détenu politique bokk na rek ci Serigne Assane Mbacké Cheikh Bara Ndiaye ak a Dieye keneen sax ka nga xam ne bàyyi nañ ko di Euh, Abouba ñu gën ko xam ci commando bu Baye di euh, TikToker. Mm-hmm. keneen Ismaïla Touré ñoom moom it teg nañu ko wala sax bàyyi nañu ko. Mhm. ak ñeneen nag ñeneen yu toll nag ci téeméeri doomi aadama yi nga xam ne nag libéré nañu leen. wala sax donc bu bu weesoo ñii nga tudd ñu mhm. siiw ñi nga xam ne xam nañ ne bàyyi leen. am na mhm. ñeneen ñoo ne dolleeku nañ ci. ci ginnaaw euh, nañu téeméer wala ñu ëpp ko pap ok ci prison bu Ziguinchor nag euh, la ñuy dem euh, juróom-benn ay élèves maanaam daal ay ndongo. libéré nañu leen ngir rek ñu dellu ci classe ga ndax rentrée des classes jot na. ñoom nag bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen kër ngir rek ñu wëyal wàññil seen i njàng mhm. bu ñu demee ci prison bu Diourbel aussi 48 euh, détenus politiques euh, maanaam bàyyi nañu leen ñu ñibbi seen i kër ñetta des nag wala sax am na ci juróom benn ya nga xam ne ñoo fa des seen i ñu ngi koy càmbar mhm. leneen wala ci sax gox-goxaan yi nga xam ne moo wër euh, Sénégal Ndakaaru ko li ko wër wala sax ci région yi am na ci ay ndaw wala ay mineurs ya nga xam ne nag ñi ci bàyyi bari na loolu lañ ci mën na jàpp rek mooy boobule juge ba fa ne wala mbooleem juge ya nga xam ne nag ñoo yor dossier yenn ci ci ay ndaw mhm. ñu ngi rek euh, teggi seen tànk ci ndaw yooyu le bu ko defee ñu mën a jàngi pap donc mineurs yu bëri fi toll nii ñi nga xam ñoo ko war a saytu ñu ngi koy saytu donc du ñàkk fan yi di ñëw dinañu am leneen lu ci bees mhm. donc di leen ñaanal ñoom ñëpp suñu borom teg teggi leen nattu bi ba ñu mën a dellu siwaat seen njaboot ayca Fatima tagal foofu sa baaraam dinaa ñëwaat ci yow pour les faits divers de la semaine laata ñuy yëkkati jotaay bi donc euh, yegg nañ fu ñuy sooboo ci li nga xamante moom mooy euh, waxtaanu bés bi nag le grand débat mooy waxtaane les actes de naissance lu jëm ci wàllum këyitu juddu yi ak jafe-jafe yi ci am ak également naka lañ koy saafaraa donc sans transition mhm. dañ ciy daal soobu rek donc euh, maam Khady a <laughs> waaw état civil moom suñ koy jëmmal pap mën nañu wax ne mooy li nga xam ne mooy tax ñu permet mooy permettre ñu identifier nit ki mm-hmm. damay faral di wax ne mooy li nga xam ne moom mooy tax ñu xàmmee nit ki ci biir nit ñi ñu ràññee nit ki ci biir nit ñi mm-hmm. ndax moom la ñuy moom mooy tax euh, ñu xam nit ki situation am maanaam ñu xam nit ki kan ñu xam filiation am mm-hmm. su ma nee filiation mooy kan mooy papam kan mooy yaayam fan la juddoo nan la tudd mm-hmm. à travers ce qu'on appelle l'acte de naissance moom mooy tax ñu xam nit ki ndax lien de mat lien matrimonial am à travers euh, le l'acte de mariage maanaam nit ki ndax mu ngi ci boobu sëy nekk ci duggoon na ci génn na ci et cetera moom mooy tax tamit ñu xam ne nit ki la personne est toujours vivante ou bien la personne est décédée à travers l'acte de décès donc loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy jëmmal nit ki ci bi nga xam ne dafa juddu bi muy génn àdduna donc chaque fait muy naissance muy mariage muy décès dafay nécessité li ñuy wax un acte d'état civil donc comme tey nag si acte d'état civil yooyu dañ ci taxaw euh, ci benn mooy li ñuy wax acte de naissance maanaam dañuy commencer par le commencement ndaxte euh, bu ñu nee bu ñu nee juddu dañu ne yaa une obligation de déclaration maanaam xale bi su juddoo la loi dafa ne y a une obligation de déclaration de de de naissance donc képp ku juddu sans exception képp ku juddu rek dañu la war a déclarer pour nga am li ñuy wax extrait de naissance. d'accord maam mm-hmm. waaw ci jëm ci lu jëm ci wàllu déclaration boobu ndax dafa am benn personne habilitée à le mm-hmm. kan moo war a def déclaration. Mm-hmm. liir bi juddu waaw ñu war a def déclaration nag euh, bëri na la loi dafa énumérer ne le de la famille dafa ne. papa mun na def déclaration en son article 51 dafa ne papa mun na def déclaration yaay mun na def déclaration les ascendants mun na def déclaration suñ ne ascendant maanaam mooy maam yi bàcceen yi maanaam képp ku bokk ci famille bi mun na def déclaration mu ne le médecin mun na def déclaration la sage femme maanaam sage bi raw la yaay si raw la yaay bi sax mun na def déclaration li ñuy wax matrone mooy ñi ñuy wax ñuy raw la ñoo ñu sax mun nañu def déclaration mm. ou toute personne pouvant fournir les renseignements nécessaires ou accompagner la la la la, la mm. personne concernée pour faire la déclaration mm. mais ci kaw loolu mu am une personne boo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko ne moom dafa war def une déclaration obligatoire mooy le chef de village wala le chef de quartier Euh, le code de la famille dafa ñëwaat en son article mu ne le chef de village wala le chef de quartier à l'obligation de déclarer tout enfant né dans sa circonscription donc kooku moom loxo yoon dafa teg ci moom loxo ne bu papa déclaré wul yaay déclaré wul bàjjen déclaré wul maam déclaré kenn déclaré wul moom dafa am une obligation de déclaration. Hmm. sous peine même demande. Ah, demande de 2000 francs à 5000 francs. maanaam chef de quartier bu nekk ci gox. Mhm. devoir la. Mhm. Euh, nga boo gisee benn gone goo xamante ne bii njort nga ne déclaré wuñ ko ñu. déclaré nga déclaré ko effectivement léegi pour déclarer donc yan est-ce am ay papiers à fournir ak yan la war a doon. léegi léegi xam na am nga may ma balaa muy ñëw ci papier bëggoon naa ko laaj parce que léegi yaa ngi wax ni papa mën na déclaré yaay mën na déclaré. Mhm. mais yaay ji. Mhm. xanaa day fekk.

papaam moom moo koy déclarer. Mm. pour la reconnaissance. pour la reconnaissance en principe papa moom moo koy déclarer xale bi nga xam ne nag moom euh, judd juddoo na ci buum sëy kooku yaayam mun na ko déclarer papa mun na ko déclarer keneen ak keneen mun na ko déclarer mais sous condition moom question bi mu doon wax nii mu am ko maanaam pièces yi may wax yi may bëgg a wax mm. mais en principe euh, euh, l'enfant naturel mooy xawle bi nga xam ne juddoowul ci buumu sëy kooku moom papam en principe moo koy déclaré mais bu fekkee ne papam déclaré wu ko aussi dañu ne la defa dafa ne yaayam mën na ko déclaré bu ko papa ji reconnaître bu ko papa ji reconnaître wul bañ na ko déclaré reconnaître ko bu boobaa yaayam mun na ko déclaré yaayam moom moo koy déclaré sax bu boobaa avec wala les parents yaay ji yaayam wala ay parents wu yaay mais dans ce cas là sans mentionner le nom du père parce que aw ma droit man ma am ma am ma am doom ma dem ma ne diw moo ko jur Papa Ndiaye moo jur sama doom. après ma dem déclarer ko au nom de Papa Ndiaye non non Papa Ndiaye bu reconnaître xale boobu moom moo war a dem déclarer xale boobu. au cas où nag reconnaître ko yaay ji mun na ko dem déclarer mais bu boobaa santu yaayam lay jël. santu yaayam lay jël. donc mais papa bu reconnaître doom loi bi amul nuñ yoon bu ñu mën a jaar pour forcer papa ji mu reconnaître ko de wala ku mu neex. waaw li ñuy wax loolu la ñuy wax interdiction de de de de de de d'indication de paternité. Mhm. cest dire que loolu mënoo fo man tey mënuma forcer nit ne ko yow yaa jur sama doom carrément loolu yoon dafa koy tere. papa ji su fekkee daf ko reconnaître moom mooy demal boppam su fekkee reconnaître ko yaay ci moom mooy demal boppam. Hmm. Euh, am na nag ay circonstances qui font que ne tey bu fekkee ne euh, mën naa dem mën naa dem yóbbu paap ci yoon ne ko man moom mooy moom mooy moom moo jox sama doom à condition mu am ay ay ay circonstances. qui font que ne man xalaat naa ne pape mii war naa mën a xalaat loo juge ne pape mii moom moo jur sama doom. loolu bokk na ci tey ñu ne bu xal bu jigéen bi tolloo diggante tey ku góor ki nga xam ne moom na ne moom mooy jur doomu kooku doon ko toppatoo. beneen bi euh, la loi ne bu fekkee ne am na ay yeneen fee comme par exemple mu judd mu ngénte ko mu judd mu jox ko tur te yooyu yëpp ay obliga li ñuy wax obligation alimentaire nga ciy am maanaam yoon dafa daax li ñuy wax recherche de paternité indication de recherche de paternité loolu yoon daf koy daf koy dàq maanaam doom jug ne diw damay dem seeti sama papa wala jigéen jug ne man kat kii moom moo jur dem moom moo jur sama doom donc comme j'ai mhm. bu fekkee ne papa ji moom reconnaître na moom mooy déclaré bu fekkee papa ji reconnaîtrewul yaay ci moom mooy uh-huh, déclaré mais foofu dafa am benn sew sew te mhm. gis nañ ne te day développé effectivement bu fekkee ne ku jigéen ki ñëw na ci ku góor ki ne ko yaa jur sama doom mu bañ mhm. est-ce que amul possibilité yi tamit def test ADN ah bien sûr am na possibilité def test ADN parce que souvent da ngay gis au niveau du tribunal des cas qui mais ko même boo ko defee bu dee loi bi nee mënoo forcer ku ku góor boo amee test ADN après mais scientifiquement yow prouvé nga ne mooy sa papaay doom donc loi bi scientifiquement dafa war a am nañ am oh. nañ preuve quoi waaw loolu loolu laay wax ne am na ay subterfuge yoo xam ne on peut faire recours à mm-hmm. tey lu waa may na ko jigéen ñëw nag diw moom moo jur sama doom si ay si kaw ay condition maanaam ku jigéen ki dem def test ADN wax ne kii kat moom moo mën nañu wax ne kii moo jur sama parce que am naa ci preuve bii mën nañ wax ne moom moo jox sama doom parce que bi ma ëmbee def na lii bi ma wasinee def na lii bi ma kii s'est engagé et mais loolu loolu laay wax ma ne li nga xam ne loolu la ci jigéen mën a am mooy li ñuy wax obligation alimentaire mais forcé bi ne mm. carrément diw moom moo jox sama doom loolu mënoo ko loi bi en fait permettre permettre ñu ko permettre ñu ko yaay ji bu ko mënul doom ji bu màggee mënul def une action en revendication de paternité waaw wax action en revendication de boobu nag moom la yoon mayowul action en revendication de paternité boobu moom la yoon mayoon parce que mënoo force nit ne yow yaa ma jur par la force avec une euh, condition que mu nekk si à condition ko mu nekk si euh, bon c'est vrai qu'on parle d'un enfant naturel mmh. mais quand on parle d'un enfant légitime parce que enfant légitime également il y a ce qu'on appelle le désaveu de paternité mmh. bien que yaa ngi ci ci ci ci ci boobu sëy yoon may na la sous sous des conditions mmh. nga def li ñuy wax désaveu de paternité ah yow jëkkër ji la revendiquer même bu dee yaa euh, en fait déglu leen ma déglu leen ma tuuti parce que la législation c'est dafa xaw a sew. <laughs> dafa li ñu am dafa yomb de pourtant combat boobu de ñun la ñuy mën a moo tax ñu naan ay ay ay kii euh, euh, nu mu tudd sax. Ousmane. Pape Moussa Pape Moussa Pape di ñu tooñ. <laughs> naan ay féministes lañ parce que dafa am yoo xam ne. xel moo ko nanguwul en réalité. Mm. tey kii def na li mënu amoo benn subterfuge boo xam ne mën nga ko recourir pour topp ko ci loolu. xam nga loolu dafa yomb tey ne du man du man dem taxawee fële. Mm. tey li nga xam ne loolu la si ku jigéen ki mën a am la limite ça c'est pas c'est pas très significatif. Euh, pour revenir par rapport à ta à ta question euh, tey dañu ne boo nekkee ci buumu sëy parce que yaa a une différence entre nga mu xale bi nga xam ne moom moo judd ci buumu sëy ak yi nga xam ne judduwul ci buumu sëy tey boo nekkee ci buumu sëy la loi dafa ne sëy boo gis ku papa ji moom moo jur doom ji. Mm-hmm. ci sëy mm-hmm. ci sëy. Mm-hmm. à compter de cent cent quatre vingt jours jusqu'au trois cent trois cent jours kooku on est supposé que ni ku góor ki moom moo jur moom moo jur xale bi. Hmm. léegi nag yaa fa am beneen action bu ñuy wax laction en en désaveu de paternité. Hmm. maanaam nga ñëw ne man bien que man ci sëy laa nekk mais xale bi man juruma ko. Hmm. loolu la ñuy wax action en désaveu de paternité léegi nag action boobu dañu ko may ku góor ki une mm. fois que mu am connaissance ci acte ci acte ci xale bi yoobu noonu juddu na mais ñu may ko ko sous condition de mu def ko ci deux mois yi nga xam ne moom moo suivre la naissance de l'enfant wala ci la xam ne xale boobu am na mais également sous des conditions parce que tey je donne juste un exemple émission bi dafa gàtt euh, mun naa ne mankat kat sa mën naa ne man kat sama jabar bi ma fin bi ma bi ma bi ma voyagé ça de dix ans mm. ma ñëw fekk ko mu am doom boo xam dafa am 5 ans. xam nga loolu tey xel nangu na. bien que ci buum sëy la nekk. Mm-hmm. tout enfant né dans les liens du mariage est présumé avoir pour euh, père le mari de sa de sa mère. bien que ci biim nguur googu mu sëy la nekk mais loolu tey bu ma prouver que ne man durant dix ans yëpp teguma sama tànk Sénégal durant dix ans yëpp gisante wu ma ak moom. Hmm. loolu ça peut être une une une action pour euh, ça peut être un commencement de preuve pour. Euh, pour jël action kon ni mu ko réglé bokkul ak bokkul ak koy waxee ci wolof naan ay sa buum la juddoo tu es nga hmm. reconnaître ko. loi bi même boo takkee jigéen bi farataas yàlla hmm. na jur doom yow nga ne kii mu jur du sama juruma ko. reconnaître moom laa tout enfant né dans les liens du mariage est présumé avoir pour pour pour père le mari de sa maman. Okay. mari de sa mère maanaam mooy ci olof képp ku am doom ci buumu sëy kii sa jëkkër moo jur doom bi comme ni ko li nga ko waxee noonu comme ni ko euh, religion wax nest comme ni ko olof di waxee comme ni ko ah, waaw ni ko diine di waxee xëy na sama xam-xam ci diine soriwul mais defe naa loolu la wax képp ku juddu ci buumu sëy sa ki nga xam ne moom moo moom moo la takk kooku moom moo jur doom loolu moom mooy principe bi. Mm-hmm. mais on parlait d'exception. dañu wax exception mu soulever benn exception maanaam ce que ki nga xam ne mu ngi ci buumu sëy mën na wax ne man juruma doom boobu ma ne ko la loi prévoit des exceptions l'action en désaveu de paternité existe mm-hmm. maanaam bien que yaa ngi ci biir sëy bi principe bi mooy comme li ma wax léegi képp ku juddoo ci buumu sëy sa papa mooy ki nga xam ne moom moo sa yaay. mais waaw c'est une présomption simple. c'est hmm. une exception parce que li ñuy wax. ci en droit non présomption de yaay papaam. waaw. c'est une c'est une présomption waaw que ne yaay papaam donc c'est le principe en fait. Hmm. parce que vous êtes juriste je vous apprends rien du tout en termes de juriste on dit il y a les principes. Hmm. mais chaque principe également il y a des exceptions. donc le principe dans le cas que enfant né dans les liens du mariage mm. est présumé avoir pour père le mari de sa mère loolu moom mooy principe bi. mais dans le dans ce cas am na ay exception exception boobu nga soulever moo tax. ma doon distinction bi kon. looloo ko waral enfant naturel simple. Mm-hmm. enfant naturel adultérin. Mm-hmm. lii moom mooy euh, seen différence wala dañu am régime yu bokkul. waa enfant naturel euh, dafa am lu ñuy wax enfant naturel comme ni nga li nga ko waxee noonu. enfant mm. naturel simple comme vous voulez. Mm. Euh, Euh, mais semple bi sa n'existe pas dans le code dañ koy wax ni euh, langage juridique mm-hmm. mais li ce qui existe mooy enfant naturel ak enfant légitime ak enfant légitimé mm-hmm. enfant naturel mooy koo xam ne dafa juddowul ci buumu sëy mm-hmm. maanaam papam ak yaayam sëyuñu woon bi muy judd loolu mooy enfant naturel enfant légitime mooy ki nga xam ne bi muy juddu papam ak yaayam ñu ngi ci buumu sëy loolu mooy enfant légitime enfant légitimé nag légitimé mooy ki nga xam ne bi muy juddu papam ak yaayam nekkuñu woon ci buumu sëy mais bu mu juddoo ba pare papam takk na yaayam donc le fait mu takk yaayam loolu moom moo légitimé cet enfant la hmm. mais dañuy wax euh, souvent kooku du doon ci Chalia. lu ñu am ma ma denc ko d'accord léegi ci beneen question sànq daf ko romb euh, mi ngi wax ci euh, droit yi nga xam ne góor war na ko def comme tey bu fekkee ka mu nekkal dafa am doom. Euh, jàppale bi wala li ko war ci moom paj beeg yu ni mel moom moo ko war a def. Mhm. mais doonu loo xam ne obligation la ku nangu ni moom moo jur ba pare deful wareefam. Mhm. ci ki nga xam ne moom la amal doom dan la yoon wax ci loolu. ah wala amul dara loo xam ne ku nangu jur moom yoon daf lay daf lay teg ce qu'on la pension alimentaire. boo ko demee ba moom yoon daf koy sax xam nga fi ñuy waxee pension alimentaire tey euh, ki nga ki nangu moom moo jur ñu nekk ci buumu sëy dafa am obligation ce qu'on appelle obligation d'entretien maanaam da nga am obligation dundal sa njaboot njaboot gi muy yaay muy doom

voilà bu fekkee yéen a ngi anticiper ci mariage ah te mariage bu mardi bi di ñëw la. bi wala ah, du mariage sax mais ah. bu fekkee defu ko. Mhm. même ci si moom laa am mais en fait je suis obligée moom bu may expliquer loolu ba dugg mhm. dans le cadre du mariage parce que mhm. c'est ce qu'on appelle l'obligation d'entretien bon je pas développer war ma xaar ba maa mais c'est dans dans ce sens là pour juste expliquer nga gën a comprendre rek par rapport loolu il y a une obligation alimentaire qui pèse le mari comme il l'a dit les charges du ménage pèsent sur le mari principal principal sur le mari léegi nag léew dans dans dans les yaa fi gisati mais loolu mais obligatoire ah, obligatoirement yéen la ko loolu la ko yoon tey nga am ko ak nga ñàkk ko am li nga am yoon du la teg loo amul de tey bu demee yow moom xam naa ne Mariane bu la fi fekkee moom kii nga ñàkk koo am Mariane indi fi beneen jigéen mu jàkkaarloo Pape Moussa mën a mën a defante moom Pape Moussa ah, bu ñu ma ci mariage dinaa gën a xuus mais c'est juste pour je vous dire que ne moom par rapport ak question bi y a ce l'obligation euh, euh, pension alimentaire mm-hmm. pension alimentaire c'est dafa am li ce qu'on appelle les vis-à-vis de l'enfant doom boo ko juree dafa am loo xam ne la cee war loolu la yoon wax loo xam ne nag ko jigéen ki moom daf ko war ci ci doomam ku góor ki tamit daf ko war ci ci doomam mais ku góor ki moom les charges euh, principal pèse sur lui la pension alimentaire pèse sur lui donc pour répondre à sa question li nga xam ne moom moo war ci xale bi ku góor ki daf ko war a def léegi nga am ko ñàkk am pour répondre à ta question li nga am rek du yoon la teg loo xam ne amuloo ko ko boo amee 100 francs bokkal mhm. sa doom boo amee 1000 francs bokkal sa doom boo amee 10 boo sa doom loolu du la teg loo amul même tey boo demoon ba jusqu'au jusqu'au tribunal parfois euh, femmes ngay gis ñuy def ay la Pape Moussa da war a jox sa doom un million du ñëw ne la sa nga war a jox sa doom cinq cent mille alors que amoo loolu non mm-hmm. dafay dem jusqu'à xool sa bulletin de salaire jusqu'à xool tes revenus mensuels jusqu'à xool tes revenus journal journalière donc loot loo amul kenn du la ko teg ndax ni nga ko ah. leen dédouaner sax mais mm-hmm. en fait de conséquence bi muy jur mooy boo xamee ne lii moo la ciy fekk day faciliter refus de paternité bi non non malheureusement mm-hmm. munoo tu ne peux pas faire face à ces responsabilités là. c'est c'est c'est c'est ce n'est pas kenn mënu leen dédouaner ci loolu. non pour man le refus de paternité pour revenir à ce à cela. pour man le refus de paternité c'est pas les charges de l'enfant en mm. général boobu. Mm. quand on parle sur le plan social en général c'est pas. c'est pas seulement la prise en charge de l'enfant parce que da ngay gis fii tey jigéen boo xam ne mënal na boppam mu ngi jël doomam en charge mi ngi def li nga xam ne war ci doomam waaw que ku judd ku ne war nga am war nga am nga am nga am nga droit am baay le droit à la famille c'est un droit consacré pour l'enfant tey ku ku mu doon yow nga xam kan mooy sa papa. Mm-hmm. rien que pour ça rek exemple boobu rien que pour ça rek tey jar na nga nit ki war a mën a reconnaître doomam léegi Pape bu ñu jógee ci mbirum euh, papa yaay genre yooyu noonu. non déclaration bi lañ nekkoon dama ci am benn question. balaa ñuy jàll yaa ngi këf gën a gën non day génn ci day génn ci déclaration yi moo tax. Mhm. parce que damay gis euh, euh, Sophie Gueye fondation j'existe euh, parce que existence bi lay remettre en cause ku ñu kiiw mhm. mais ku dem ba mhm. màgg. dem ba war a dugg école nekkate yow mosuñu laa déclaré. naka ngay def. Euh, yan procédure ngay jël. pour mën a am déclaration et déclaration boobu rétroagir ci sa vie antérieure yëpp. d'accord en fait yan pièces dañuy fournir pour déclarer après ñu ñu laajte délai beeg yooyu waaw waaw d'accord en parlant du délai peut-être mun naa compte mun naa mun naa tontu ci ci question Pape mm-hmm. Moussa pour revenir par rapport aux pièces. Mm-hmm. Euh, Euh, pour déclarer l'enfant il faut le la la copie de la pièce d'identité de la maman. maanaam këyit yi ngay war dajale pour déclarer xale. këyit yooyu moom laay wax copie photocopie pièce d'identité yaay ji. Mhm. photocopie pièce d'identité papa ji. Mhm. ak le certificat ak le certificat d'accouchement. d'accord ce sont les trois pièces si c'est le père qui déclare. je dis bien si c'est le père qui déclare. bu dee papa jee dem déclarer ko ñett yi la war a yóbbu. su nekkee papa ji moom mooy dem déclarer. photocopie pièce d'identité yaay photocopie pièce d'identité moom mi déclaré mooy papa ji ak le certificat d'accouchement bu xale bi ñu lay jox ci boo juddoo ci hôpital bi wala clinique bi wala foo mënti juddoo bi ñu lay jox moom mooy les trois pièces je dis bien ces trois pièces si c'est la père qui fait la déclaration mais si c'est la maman qui fait la déclaration wala les l'ascendant mooy pap maam wala bàjjen wala mhm. keneen wala chef de village bi wala keneen bu fekkee xale bi bu fekkee xale bi si këyit bu mu sëy lu juddoo maanaam c'est un enfant légitime il faut un certificat de mariage. bu dee amuñu ko nag. pour prouver l'existence que ne pour prouver l'existence de liens du mariage pour prouver que ne xale bi c'est un enfant légitime maanaam xale bi si bu mu sëy lu juddoo. le plus souvent li tax ma insister ci loolu mooy da ngay gis euh, yaay dem di déclarer ñu ne non yaay mënul déclarer jigéen mënul déclarer. ah kay jigéen mën na déclarer la le de la famille a nommément cité la maire les ascendants bàjjen médecin matrone sage-femme l'article 51 du code de la famille ñooñu ñëpp la cité. Mm-hmm. l' article 33 du code de la famille cite le chef de village ou le chef de quartier xam nga kon ñooñu ñëpp mën nañ déclarer. Mhm. mais le plus souvent suñuy déclarer su yaay bi demee di déclarer dañ ko naan mënoo déclarer mu ne man kat en tant que jigéen mënuma déclarer non non c' est pas que en tant que jigéen mënoo déclarer en tant que jigéen pièces yi nga war a déclarer moom nga amul. Mhm. parce bu leen fàtte fii sànq wax naa leen ne enfant naturel maanaam xale bu juddoowul ci buumu sëy en principe papam moo koy déclaré su ko papam déclaré wul yaayam mun na ko déclaré mm-hmm. mais su ko yaayam déclaré lan laa wax santu yaayam lay jël mm-hmm. effectivement dafay question boobu dafay ñëw dans le cadre de l'enfant légitime maanaam xale bi nga xam dafa juddoo ci bu mu sëy tey bu ñu indee xale bi juddoo ci bu mu sëy papam demul déclaré ko yaayam war ko dem déclaré bu yorul certificat de de mariage day mel ni c'est un enfant naturel mm-hmm. bu boobaa nag santu su ma neexee ma am fee sama doom forpes Pape Moussa dem ca officier station nag Pape Moussa moo jur sama doom lan moo koy dindi kenn du ko dindi mm. Mm. donc loolu moom moo tax ma ne booy déclarer si hormis le père bu fekkee ne papa ji la pièce papa ji doy na pièce yaay ji doy na le certificat de couchement les trois pièces ça suffit mais su nekkee yaay ji mooy déclarer wala quelqu'un d'autre il faut le certificat de mariage su fekkee xale bi si bu mu sëy la juddoo pour pour que ne xale bi si bu mu sëy la juddoo parce que dans l'autre cas muy naturel muy légitime euh, père bi lay jox santam donc ñu soxla effectivement parce que la reconnaissance moom papa moom moo koy def papa mooy taxaw mu ne man diw man maa ko jur nit moom mooy taxaw mu ne diw man maa ko jur donc reconnaissance pap moom moo koy def mais yaay mënul dem ne man diw moo jur sama doom comme j'ai dit tout à l'heure Pape Moussa su ma neexee ma jël sa pièce daan jël pièce Pape kii ñëw ne moo jur sama doom wax yi yëpp c'est obligatoire mais mais am na benn problème parce que mhm. mhm. dans les régions où fond fin fond du Sénégal. Mhm. Euh, dañuy gis souvent am na ñoo xam ne sax mën nañ accoucher seen kër. et mhm. tout ça là goo ma ne peut-être dinañ am certificat est-ce que cas yooyu tamit. waaw euh, le certificat d'accouchement euh, comme j'ai dit léegi da euh, Sénégal foo mu sori sori sori sori je pense que hôpitaux am na fa. te léegi sax les wax naa fi sànq matron mooy kii li muy rawle affaire yooyu noonu ñooñu sax mun nañ def les déclarations xam nga le fait d'accoucher ak le fait de la déclaration c'est deux choses diamétralement opposées certificat d'accouchement même la loi dafa ne su fekkee certificat à l'absence du certificat d'accouchement on peut avoir deux témoins qui peuvent certifier la naissance de l'enfant pas deux témoins yooyu dem forfait Pape Moussa dem fooy fooy euh, dem fee for Papa Ndiaye ñëw ne leen yaay seen sama témoin non non des témoins qui font que euh, mën nañu certifier la la naissance de l'enfant loolu bu ma ñëwaat bu ma ñëwee bu may tontu euh, ci délai yi mhm. dinaa la wan ne la gis nga ki da ngay dem ba def entrée en sixième dem ba def bac wala dem ba màgg màgg am ay 30 ans extra xam nga kooku tey boo ko ne dama nguuti certificat d'accouchement da nga koy sonal mhm. kooku tey mën na remplacer le certificat d'accouchement ça me de mm-hmm. reprendre de, de rebondir sur la mm-hmm. dafa laaj par exemple ku dem ba màgg nan lañ koy déclarer waaw léegi balaa balaa nga génn ci pièces yi toujours waaw mm-hmm. am na ci ñoo xam ne dañ lay laaj certificat de célibat parce que nag jamono ji dafa dafa tëradi da gis jigéen jigéen bu nekk ci certificat de célibat ah, parfois nga gis jigéen boo xamante ni da lay gëmloo ne la alors que mi ngi ci buum ah, nga dem dugg ci sëy boobu noonu ah. am na ci jigéen ñoo xam maanaam nekk ci buum bi dogagul bëgg duggaat ci beneen sëy mais loolu si mariage lañ koy laaj wala si naissance si mariage ah. je pense si mariage je pense soo bëggee remarier non en loolu si certificat de mariage cest nit ki su bëggee remarié wu alors que mu ngi ci buum sëy loolu nga bëgg a wax waaw xam nga xam nga ci pièces ngay fournir mun naa andi certificat de keneen ko dul papa ji dëgg

loolu genre c'est beaucoup la plupart les gens dañ lay wax man de mu déclaré ma sama doom bi mm. parce que papam nekk fi mm. bien que si bu sëy la nekk de mais du ko def parce que bu demee dañ ko naan mënoo déclarer la question du mënoo déclarer la question mooy mm. amoo les pièces qu'il faut pour déclarer la plupart des mariages la plupart des déglu amuñu certificat mariage mm-hmm. léegi nag boo bëggee ne yaay ji booy déclarer da war a indaale certificat de question question en tant que c'est ça la véritable euh, kii euh, la véritable le véritable problème loolu la les gens ñoo amuñu certificat de mariage loolu mooy problème du ñëpp ñoo ko am hmm. xanaa genre Pape Ndiaye nga xam farfas koy am parce que allocation yi moo tax ah. <laughs> d'accord léegi ci euh, déclaration yi mhm. da ngay gis sa xale bu màgg ba am cinq ans six ans ba yenn at yi mhm. amuñu këyit ñu war a dugg école nekk ci ay problème hmm. donc ci ban délai la war a mën a joxe euh, euh, këyitu juddu mhm. ak it ci ban at ak wala sax boo demee ba toll ci yenn at yi yan pièces ngay fournir pour ñu mën la ko jox. ba xam yi nga filim léegi. Mhm. yooyu ngay indi wala boo demee ba jàpp âge commencé nekk mag amoo kayit. Mhm. naka ngay def ba am kayit. d'accord euh, ça en même temps ma tontu. Mhm. ci question Pape Moussa bi. mu ne boo demee ba màgg nan def pour am kayit. Euh, la loi dafa def li ñuy dafa wax ne par exemple dans un délai d'un mois maanaam xale bi su juddoo. dans un délai d'un mois mhm. mën nga dem au niveau de l'état civil du lieu de naissance maanaam fi xale bi juddoo foofu mooy lieu de déclaration j'en profite pour cabaxal ci question boobu parce que c'est question boo xam ne day mhm. day problème chaque jour fan la ñu war a déclarer mhm. lieu de déclaration égale lieu de naissance. boo ko leeralu gars yi mën nañu xëy rek jubali police de ne dañuy dem déclarer seen bopp <laughs> déedéet <laughs> déclaration centre d'état civil la ñuy déclarer centre d'état civil am na hôpitaux yoo xam ne am nañ ay centre d'état civil lu ci mel ni ay principal lu ci mel ni ay Abbas Ndaw ñoom seen centre d'état civil mu ngi ci biir centre bi mm. centre boobu fekkee xale bi dafa juddoo foofu ci centre boobu ngay déclarer bu fekkee xale bi dafa juddoo par exemple lu ci mel ni clinique boo xam ne amul centre d'état civil da ngay xool clinique bi ci circonscription bi mu nekk maanaam ci commune bi mu nekk commune boobu moom mooy compétent pour recevoir la déclaration de l'enfant bu fii ci biir bu bu dee fii ci Sénégal léegi euh, pour juste reprendre li nga doon wax léegi mooy ci ban délai ñu ne la lieu de déclaration égal lieu de naissance mais lieu de naissance déclaration bi dafa am ay délai mm. délai bi ci njëkk mooy yoon daf na la may na la un mois maanaam bu xale bi juddoo ba un mois papa mun na dem déclarer yaay mun a dem déclarer maam mun a dem déclarer keneen ak keneen mun a dem déclarer la loi le code de la famille nee na au delà de un mois au delà des un mois su fekkee ne papa déclaré wul yaay déclaré wul bàjjen déclaré wul kenn déclaré wul mu cité nommément le chef de village ou le chef de quartier waxoon naa ko sànq ci les mhm. déclarants mu ne ce chef de quartier ou ce chef de village a l'obligation dans un délai de quinze ju jours quinze jours maanaam moom ci un mois yi tegaat na ci quinze jours pour ne mën nañu ci déclarer xale bi ba tey ci lieu de naissance bi au centre d'état civil un mois plus 15 jours égale combien. 45 45 jours. donc ñu jàpp ne délai déclaration au niveau de l'état civil yoon dafa ne un mois plus les quinze jours yi nga xam ne moom la tegal officier euh, moom la tegal chef de village wala chef de quartier bi muy 45 jours c'est ça la déclaration normale. d'accord moom mooy déclaration normale. léegi c'est y a ce qu'on la déclaration tardive. Mmh. la déclaration tardive. moom euh, le code de la famille dit que cette déclaration tardive toujours au niveau de l'officier d'état civil du lieu de naissance mën na dem jusqu'à un an jusqu'à un an maanaam tey le 3 octobre 2023 xale bi bu ci juddoo ba le 3 octobre 2024 24 mën nga dem ci officier d'état civil du lieu de naissance pour faire la déclaration kon délai bi déclaration normale ñu ngi ci cinq jours mais au-delà de 45 jours toujours mën nga dem au niveau de l'officier d'état civil. Mhm. jusqu'à un an. loolu moom mooy non pièces yi du changer. pièces yi du changer le seul seul changement bu ci am rek mooy la déclaration tardive bi nga xam ne dañ la koy dafay def mention. Mhm. donc loolu moom mooy le principe. ok loolu moom mooy la déclaration normale. léegi nag au-delà des un an. au-delà des un an comme ni ko Pape Moussa laajee ni nit bu nekkee demee ba nekk mag nan la ñuy déclarer mu ne lu au-delà des un na l'officier d'état civil n'est plus compétent pour recevoir la déclaration de l'enfant mmh. ci olof ah ci olof ci wolof waaw ma ne bu xale bi amee at maanaam bu dépassé at xale boobu tey bu dépassé at officier d'état civil bi mmh. mënatul jël déclaration parce que dépassé na at at yoon at la ko may. at boobu bu ko xasee ba dépassé dañ ko wax ne ko balaa ngay déclarer xale bi da ngay xale bi daf lay indi ce qu'on appelle un jugement d'autorisation d'inscription tardive de naissance. jugement d'autorisation d'inscription tardive de naissance. loolu fan lañ koy wute. importante question. fan la ñuy wutee jugement d'autorisation euh, d'inscription tardive de naissance boobu. foofu tribunal lañ koy ute tribunal départemental. tribunal d'instance. tribunal actu actuel tribunal d'instance. actuel tribunal d'instance. li tax ma wax tribunal départemental parce que sama mbokk mairie xam naa ñu ngi may seetaan te loolu lañ gën miin gën a miin moom la ñuy wax léegi tribunal d'instance comprendre nga euh, donc tribunal mooy compétent pour jox la ce qu'on appelle da ngay dem ñu defal la jugement am audience mm-hmm. tribunal bi def enquête wala mu euh, enjoindre police wala gendarmerie ñu def enquête nga indi témoin laa nag les pieds changent. Hmm. parce que bu ñu passé un an bi booy dem tribunal da ngay bind requête au fins de jugement d'autorisation d'inscription tardive de naissance requête mooy demande rek. Hmm. terme juridique la bu ñuy wax ñun mais requête mooy demande. demande bi ngay bind wax ne man sama doom juddu woon na ci tel at euh, déclaré wu ma ko un an yi passé na. dama bëggoon tribunal defal ma li ñuy wax jugement d' autorisation d' inscription tardive de naissance loolu boo ko dugalee biir tribunal requête bi lay doon dafay am lu ñuy wax le certificat de non inscription de naissance. Mm -hmm. de non inscription de naissance benn acte la boo xam ne da mairie nga koy utee kayit boobu li tax mairie di la ko jox day wane ne yow kat fii nga waroon déclarer xale bi mhm. mais mësoo ko fi déclarer kenn mësul déclarer xale bi foofu kenn mësu ko bind ci benn registre. c'est important parce que waroo dem tribunal ñu defal la beneen jugement pour déclarer la alors que yow mësoon nañ la déclarer moo tax ñu lay laaj le certificat de non inscription non inscription mooy mësuñu la bind fenn. Mhm. donc loolu moom mooy deuxième pièce bi. troisième pièce bi mooy sa comme comme j'ai dit euh, photocopie pièce d'identité papa photocopie pièce d'identité yaay ak le certificat d'accouchement à l'absence du certificat d'accouchement deux témoins avec leur pièce d'identité. D'accord. Mmh. léegi nag papiers yi ma wax nii loolu ngay yóbbu tribunal boo demee tribunal loolu au delà de un an jusqu'à am nga am cinq ans jusqu'à nga am sept ans jusqu'à nga am vingt ans jusqu'à nga am trente ans c'est le jugement d'autorisation d'inscription tardive de naissance qui fait fois maanaam boo xasee ba jël un an mhm. at boo mënti am rek da ngay dem def jugement d'autorisation waxuma nag c'est une précision Pape boo ma ko mayee ki mhm. nga ne ñun li ñuy dégg en terme de jugement maanaam li ñuy tuddee ñun jugement damay dem def jugement. Mm-hmm. ñun fii damay dem di jugement mooy damay dem wàññi at. Mm-hmm. je parle pas de ça. lu ci loi wax jar na leeral de. <laughs> lu ci def bu procureur jàppale de. xam nga jugement dama ko mës a wax ci benn plateau ma ne jugement wàññi at ju li ñuy woowe jugement en fait mm-hmm. wàññi at. ma ne wàññi at délit la. y bu pas mal de gens qui moo di wàññi at du délit parce que ñun dañuy wàññi at dañuy lii te kenn mësuñu teg affaire yooyu ma ne attends. délit la de. wàññi at bu dul délit lan mooy délit. Mm. boo demee ci juge bi fekk mu taxaw est-ce mm. koy mës a wax sama doom bi mës nañ ko déclaré mm. donc ko mës a wax mm-hmm. da nga naan kat mësuñu ko déclaré parce que suñ ko mësee déclaré bu leen may définir l'état civil dama ne mm. mm-hmm. c'est l'élément d'identification de la personne Papa Ndiaye mënuma la identifier deux fois dans la société mënul nekk benn Papa Ndiaye mënul exister deux fois on ne duñu on ne déclare pas un enfant deux fois day fausser le principe d'élément d'identification mm-hmm. moo tax tey ñiy def jugement di wàññi at dañuy juddoo Dakar parfois dem ba Thiès ut fa certificat de non inscription de de naissance xam nga ut fa ay témoins témoins yi dañ leen naan bu leen wax at bii la judd de wax mm-hmm. leen at bii la judd maanaam dañuy préparer c'est du faux mm-hmm. effectivement mm-hmm. c'est ça la c'est ça la la la la boo xoolee sax juridiquement dafay mel ni dañoo rey seen bopp juridiquement effectivement la leeral il faut il faut ñu leeral foofu parce que suñu nee jugement kenn waxul jugement wàññi at jugement wàññi at c'est un délit c'est du faux parce que li tax muy délit rek faux mësul mësuma ko en ah, déclaré te yow mës na ko déclaré. Mhm. da nga bëgg wàññi atam xëy na. mësul masul mësul mësuma ko ah, juddoowul Dakar Thiès la juddoo alors que moom Dakar la juddoo juddoowul Thiès Diourbel la juddoo alors ko Diourbel loolu c'est du faux c'est des fausses déclarations te ces hmm. fausses déclarations là c'est puni par la loi donc loolu moom moo tax ma ne jugement c'est un délit parce que yow li ngay wax devant le juge yëpp kon bu ñu dem di wutee la ñuy profité joxe beneen année bu dul année bi ñu judd effectivement noonu lay noonu lay noonu noonu lay noonu parce que da dem xale bi judd 90 nga bëgg ko euh, euh, euh, retrancher benn 5 ans nga defal ko 95 mais ci 90 boobu mu juddoon amoon na fa amoon na amoon na fa këyit amoon na fa extrait de mais yow au lieu que xam nga wax naa leen le le le certificat de non inscription lan moo tax juge bi di ko laaj et pourquoi c'est important euh, parce que dañuy xool ndax yow mës nañ la mës nañ la déclarer fen mm-hmm. parce que normalement waruñu la déclarer déclarer waat leen le principe de l'identification ça dañ koy faussé donc pour juge bi am certitude que ne yow suñu la déclaré foofu dala naan demal ci mairie bi nga xam ne faral nga waroon déclaré xale bi nga wutal ma fa certificat de non nation pour ma am certitude que ne man kat xale bi kenn mosu ko déclaré foofu mais dañ fay romb mairie boobu supposons que mairie boobu nekk mairie Dakar dañ la fay romb dem ba mairie Rufisque wala ñu dem ba mairie Yëmbal wala ñu dem ba mairie euh, mm. Thiès fut fa beneen këyit su ñu demee ut ñaari témoin yoo xam certificat d'accouchement mun doo ko doo ko am doo ko ut sax nag mm. parce que boo ko utee da ngay feeñ da ngay ut ñaari témoin indi moo tax man am naa sama benn xaritu juge nee na ma man lu métti métti dama naan indi ma certificat d'accouchement bi. mais loolu demal nga wëri nga dem nga ah? waaw c'est ça problème en fait c'est ça problème moo tax ma ne deux deux témoins peuvent remplacer loolu la yoon wax. Mm-hmm. mais moom c'est nee na pour. Euh, crédibiliser. waaw pour crédibiliser subterfuge yooyu yi di utiliser mu mën ko mu mën ko kii léegi mu ne la nga indi ñaari témoin pour pour pour ñaari seede nga indi ñaari seede mm-hmm. bu boobaa. doo wax mukk ci seede yooyu da leen di préparer avant ñuy dem devant le juge. Mhm. parce que seede yooyu bu ñu xamee ne xale bi 90 a njut bu ñëwee juge bi dana naan yow Pa yaay seede diw nga ne waaw kii jur diw moo jur diw nga ne waaw diw at la judd nga ne waaw mais loolu il faut ñu préparer la. donc loolu c'est du faux bu waxee méngoowul na même ah. seede bi def mu loolu noonu. waaw mais loolu kooku infraction la def. moo bien sûr infraction eh, tax ma ne moo tax ma ne jugement bu ñuy wax lépp hmm. c'est te les fausses déclarations c'est un délit en droit. moo tax ma ne moo tax ma ne juge waaw audience foraine tamit du wàññi at ba tey. Hmm. lan la kon. audience foraine du wàññi at. dafay déclarer ku ñu mësul déclarer. ba tey ku ñu mësul déclarer audience foraine. Euh, ni may faral di ko waxee pour ñëpp comprendre maanaam tribunal bi mooy jóge ci tribunal bi. ñëw fekk ci population bi. Mhm. alors que su nekkee dans la procédure normale yow nit ki yaay dem fekki tribunal bi loolu mooy procédure judiciaire normale. Mhm. audience foraine li tax ñu koy def c'est pour yombalal xale yi nga xam ne mënuñu am kayit. ci délai bu gaaw mënuñu am kayit parce que rempliruñu condition yi ma wax sànq mënuñu am kayit parce que amuñu les pièces maanaam ñu ngi ci. jafe-jafe mm. pour remplir les conditions d'avoir l'acte de naissance dans les procédures normales ñu ne dañuy jàppale yooyu xale par exemple gox bii nii euh, liberté six gi ñu nekk xale yi gis nañ ni xale yi fi amul këyit war a def examen bëri na mm. pour jàppale leen maire bi bind ne man kat sama gox gis naa ne xale yu fi am temps ba temps war a jàngi affaire yooyu am nañ problème mu état civil mm-hmm. est-ce que duñ ma jàppale tribunal bi ma jàppale ñëw def li wax audience foraine maanaam tribunal bi jógee foofu ñëw déplacé indi tribunal bu ñëwee déplacé wu non day facilité mm-hmm. parce que jugement mm-hmm. ku nekk xam na ne tribunal du benn yoon nga fay dem ñu jox la kayit. dañ la naan audience tey renvoyé nañ ko mois prochain renvoyé nañ ko mois prochain renvoyé nañ ko mois prochain à la fin xale bi day tardé def examen wala xale bi xëy na kayit bi lu mu ko soxlaa woon mënul xaar le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. loolu moom mooy waral audience foraine mais la plupart. audience foraine bi teewu teew la. la plupart bi mooy gën a rapide. Hmm. la plupart dañuy. def bon pas enquête du ci lu ci lu ci lu ci ëpp du ci am. Mhm. mais dinañu questionner Pape Moussa ndax yaa jur kii te mooy ñëw xale bi ñëw ñu defar bi après bu ñu paree délivrer le jugement mais concerne que les enfants. par tranche d'âge mën nañ la tey dañuy may. les enfants de. dañuy may teyit les enfants de cinq à dix ans les enfants de 10 à tel 12 euh, ans 13 ans et mais li am importance non laaj moo xam nga mu am solo mhm, waaw man dama gis ay magum jëmm yooyu ñii am na ay 30 ans 35 ans mosuñoo am këyit ci seen àdduna carte d'identité amuñu carte d'identité sax amuñu ko effectivement non non important eh moom duñu xam sax seen at mm, wallaay ñaata at lañ am loo xam nu ñu def et puis dafa jur beneen problème dama doon xaar mu daaneel ma laaj ko parce que man kaala bu ma gis mm-hmm. euh, mooy euh, couple Mm-hmm. kenn ci ñoom amu ci kayit seen mm-hmm. doom mm-hmm. léegi ñoom ñu bëgg seen doom moom am kayit daal léegi loolu boobaa naka la ñuy def <laughs> est-ce xam nga li ma la. xam la te. <laughs> loolu loolu loolu loolu pour du benn cas. loolu milkaa la ci dëkk bi. mille la ci dëkk bi ñi amul kayit bëgg jox seen doom kayit dañ koy rusa wax effectivement dañ koy sax parfois rusa wax ne man awma kayit waaye li may faral di wax ci olof naan balaa nga naan naam ne fa yow boo nee da ngay jox sa doom day am kayit yow tamoo kayit du problème. Hmm. dans ce cas là procédure bi ñuy def mooy dañuy procédure jugement d' autorisation d' inscription tardive de la mère. jugement d' autorisation d' inscription tardive du père mais loolu noonu xale boobu xam nga moom laa doon wax sànq day ñëwaat ci kaw audience foraine xale boobu mën na dugg audience foraine. bu boobaa juge bi day def procédure papa def procédure yaay mais procédure xale bi moom mën nañ ko mën nañ koo dugal ci audience forum mu gën a gaaw parce que papa jeeg yaay ji amuñu bay am doom ah? ñoom ci seen bopp amuñu bay am doom waa xam nga l'état civil mooy mooy mm. l'existence de la mm. personne déjà quand tu existes pas juridiquement mm. mënoo sa doom da bëgg mu exister juridiquement moom laa wax sànq ma ne balaa nga naan naam ne fa balaa nga naan sama doom na am yow amoo yow la ñuy njëkk lijjanti sa kaa d'abord mm-hmm. donc c'était c'était pour revenir par rapport ak li nga wax sànq audience foraine audience foraine képp ku amul kayit mën na ci dugg. Hmm. mais parfois dañ koy définir selon les tranches d'âge. wala circonscription bi ñuy maye affaire yooyu c'est à des conditions. ci ban moment lañ koy maye ci at bi wala ñoom ñooy tànn bu leen. non parfois c'est à la demande. d'accord parfois c'est moom laa wax sànq ma ne par exemple maire bi mën na jug ne sama circonscription dama gis ne xale yi amuñu kayit hmm. école mu ngi ubbi. demande rek leen affaire yooyu. kon kon maire yi euh, mën mairie mën nañu ci dimbali xale yi man je vais dans des villages yoo xam ne le chef de village en tant que tel mooy bind. Mhm. Euh, au niveau du tribunal pour demander à ce que ñu am audience foraine dans dans dans dans le village wala dans la commune. Mhm. mais bu boobaa dañuy ñëw ci commune bi def mais li ma si doon préciser par rapport aux audiences avant ngay ñëw ci sa question bi c'est important audience foraine yi comme ni ma ko waxee sànq c'est des euh, c'est des audiences boo xam ne tribunal bi mooy déplacé wu ñëw ci nit am nga yi ñuy wax sànq ba tey mën nañu retrouver des enfants qui ne peuvent pas remplir ces conditions là mm. maanaam xale yoo xam ne li ma fi wax nii mënuñu ko mënuñu ko am ces cas de figure là moom moo tax procureur je, je signale également que le procureur moom aussi yoon may na ko xale bu mu yëg ne déclaré wuñ ko wala xale boo xam ne remplirul les conditions moom mu autosaisir wu jox xale boobu at loolu yoon moom moo ko may pour revenir à la à toujours dans les compétences juridictionnelles xale yooyu noonu dañ leen di faciliter pour ñu am kayit ci nu mu gën a gaawee. Mhm. mais li tax audience foraine yi souvent juge yi di ci tey comprendre nga. Mhm. c'est les faux. parce que audience foraine yi. ak étranger yi ci bëgg la waxaloo. ci la foofu laa jëm moom mooy les faux. Mhm. parce que si la Pa Moussa di ut papa bu bees si lay ut yaay bu bees si lay ut at bu bees at bu mu judd bu bees. te loolu du objectif audience foraine audience foraine at bi nga judd boobu ngay déclarer c'est pour permettre à l'enfant qui n'a jamais été déclaré d'être déclaré ou bien à la personne qui n'a jamais été déclarée d'être déclarée loolu moom mooy solo audience foraine mais le plus souvent euh, les juges nous disent ñun dañuy tey ci audience foraine parce que c'est le lieu de de de de de, mmh. de mm. nit ñi dañuy ñëw ut seen papa ut seen yaay préparer les témoins ñëw alors que du loolu moom moo taxoon a jug audience foraine xam nga sama genre dañoo dëgër fit hmm. dañuy ñëw devant le juge di wax loo xam ne amul te comme li ma doon wax sànq moom mooy les fausses déclarations dañuy ñëwaat dans le cadre de ces fausses déclarations donc tu es en train de commettre un délit aussi bien pour les parents yi koy def aussi bien pour les les yi nga xam ne ñoom ñooy témoins yi li nga xam ne nekkul nekkul nekkul dëgg hmm. alors dama jot fii euh, à quand l'interconnexion et l'informatisation du tous les centres d'état civil du Sénégal pour éviter ces dérives constatées. waaw mm-hmm. euh, genre question solution la en fait. c'est c'est c'est important question question bu mu laajte. Mm-hmm. je pense que ñu ngi ci nekk dans un programme qui s'appelle Nekkal. boo xam ne mu ngi commencer numériser les les centres d'état civil. Mm-hmm. mais nag waragul Sénégal. Euh, état civil quand je disais que état civil jarul en fait on paye pas jarul jarul xaalis juste le timbre nga daan jën je donne juste un exemple tey boo demee centre principal bi nga xam moo nekk Grand Dakar bu principal xam nga léegi moo nekk Grand Dakar foofu tey boo demee dootoo jën timbre ils ont numérisé donc am na un programme yoo xam ne Euh, am na jéego yu yuñ ciy teg par rapport à ce ce qui je pense que programme nekkal boobu mi ngi avancé beaucoup dans les communes mi ngi commencé même dans nekk dans les régions les centres les centres yi ñu ngi koy commencé appliquer mais nag dajagul Sénégal yépp là ça c'est un deuxièmement pour une, une une réflexion beaucoup plus poussée par rapport à sa question mm-hmm. tey yaa ñun dañuy ñi ngi xam dañuy liggéey ci état civil dañuy wax à quand un guichet unique pour l'état civil mm xam nga moom dafa wax rek euh, numéra numérisation. Mhm. ñun dañuy wax à quand guichet unique euh, état civil. parce que bu leen fàtte fii sànq dama wax ne lii de naissance mooy lieu de déclaration. Mhm. Euh, dafa am ay ay jafe-jafe yoo xam ne daf koy indi tey bu ma demoon par exemple une femme bu nekk enceinte dem Tambacounda accoucher fa moom dëkkul Dakar dëkkul Tamba. Dakar la dëkk xëy na Tamba pour des raison professionnelles je sais pas pour quelle raison moo tax mu dem fa tey bu fa accouché xale boobu lieu de naissance am Tamba la lii de déclaration am Tamba la tey yaayam bu tayalee mel ni man accouché rek daal di dañ ay bagages sam ñibbi si Dakar tey est-ce que dina dellu ba Tamba pour déclarer l'enfant xam nga parfois mun na ko bañ a jaga alors que tey su ñu amoon benn guichet unique boo xam ne euh, mën nga toog fii dakaar Euh, déc la même xale bi sax bu fekkee déclaré nañ ko à Tamba par exemple mu soxla mu soxla état civil tey nga toog fii d'un d'un seul clic nga am kayitam loolu tamit dina nekk loo xam ne ça facilite les choses te dina nekk loo xam ne tamit tey jii euh, nit ki du am benn paresse boo xam ne daf koy daf koy daf koy empêcher tey muy dellu ba lieu de naissance bi parfois je te mhm. pour wane ni les gens sont laa koy tuddee xaw sama genre bi parfois da ngay jógee yëmbal sax yëmbal gii wala nga jógee Rufisque pour des raisons sanitaires ñu indi la principal nga war a déclarer principal nga ne dootuma jógee yëmbal ñëw principal déclare parce dafa sori tu vois kon contrainte déclaration lire déclaration bi déjà loolu daf lay daf lay daf lay permettre tey nit ki ne dama tayal dem wala mu dem gis oustaz bi nga xam ne moom moo nekk foofu noonu ci lieu boobu jéem ko wax ne ko déclarel ma sama doom parce que tayal naa dellu Dakar dëkkuma fa dama fa demoon pour des raisons sanitaires alors que officier boobu day bañ parce que la moo tax muy bañ officier boobu tamit moom dafa am des des sanctions qui sont derrière lui te dafa am de règles de conduite yu mu war a yu mu war a tenir dafa am de condition qui sont réunies pour mu defal la déclaration qui doivent être réunies boobu léegi su bañee yow nga ne ah man de officier mu fekk daa bon bonu il applique la loi. donc euh, par rapport à cette euh, sa question. je pense que loolu aussi dina doon nekk lu am mhm. solo. ci état civil yi souvent dañuy gis euh, numéro registre yu ndoro. Mhm. dafa bari. da ngay dem sa numéro registre nga gis ko ci keneen wala keneen ngeen am bokk même numéro bi lan mooy waral loolu. normalement hmm. les numéros warul nuroo ku nekk da nga am li ñuy wax numéro di d'identification ku nekk da am li ñuy wax numéro di Euh, je donne juste un exemple gis nga sa pièce d'identité boo ko jëloon bu ma amoon fi pièce d'identité ma wan la pièce d'identité boo ko jëloon chiffre bi njëkk bu dee Papa Ndiaye lay doon bu dee yow jigéen lay doon moom mooy spécifier le sexe maanaam góor mooy un jigéen mooy deux les trois chiffres yi ci topp. Mhm. mooy numéro centre d'état civil bi. loolu mën nañ ko nuróole man ak yow parce que mën nañu bokk centre bi ñu juddoo. Mhm. bu dee principal c'est 751. Mhm. comme comme vous comprenez. les quatre euh, Kaolack 548. Kaolack 548. numéro c'est important. c'est important c'est juste pour pour pour pour pour kii pour nga comprendre. moom mooy les chiffres qui suivent ah. am na kenn yeneen quatre chiffres yu suivre yeneen quatre chiffres yi mënuñu ko nuroo ma ak yow parce que suñu année de naissance la mën nañ ko nuroo ci kaw ñu bokk même année de naissance mm-hmm. mën nañ ko nuroo ci ñu ko même année de mais bu ñu bokkul année de naissance mënuñu ko nuroo parce que année de naissance la mm-hmm. mën na nekk tamit année bi nga xam ne moom nga def jugement je parle toujours de jugement ouais, d'autorisation ouais, d'inscription tardive de naissance mm-hmm. bu fekkee da nga def jugement du année de naissance réelle bi moo fay nekk mais année de jugement bi moo fay nekk mooy les quatre chiffres qui mm. dernier chiffre yi après l'année de naissance moom mooy nekk sa numéro bi nga xam ne moom moo nekk ci registre bi boobu tamit nekkul numéro boo xam ne maak yow mën nañ koo nuroo souvent li nga bëgg a wax je vais au-delà de votre li nga bëgg wax mooy les actes fictifs. Mm-hmm. vous voulez parler de ce qu'on appelle les mm-hmm. actes fictifs. moom la ñuy woowee en termes juridiques les actes fictifs ou les actes inexistants. pourquoi actes fictifs parce que le cas de ces actes fictifs ou inexistants euh, quatre trois mën nañ ci relever trois cas. cas boo xam ne soit man j'ai un numéro boo xam ne dans le registre nekku fa sa n'existe nulle part dans le registre. c'est un numéro fictif. Mhm. moo tax ñu tuddee ko acte soit le numéro existe dans le registre mais renvoie à une autre personne. Mhm. c'est-à-dire le numéro existe dans le registre mais renvoie à une autre personne c'est-à-dire man le numéro 200 que j'ai si sama acte man su ma demee Pape Ndiaye laa fay fekk. numéro 200 dans le registre ça correspond pas à Fama mais ba à Pape Ndiaye loolu la ñuy wax également les actes fictifs ou inexistants l'autre cas de figure bi ñu ciy rencontré mooy l'acte existe le numéro existe dans le registre mais n'est pas signé par l'officier d'état civil ni par le juge de paix je m'explique registre bu nekk boo leen xamee registre nu mu nu mu mel n'est-ce pas yi ñëpp xam ngeen registre nu mu mel. Mm-hmm. registre au niveau du centre d'état dañ koy ubbi chaque année du premier er janvier de l'année di ko tëj le 31 décembre de l'année suñu ko tëjee parfois registre bu ne bañ a fees léegi nag feuille yooyu di des noonu souvent dañ fay bind ñi nga xam ne dañu bëgg def ay faux mën nañ fa bind nit. te kuñ fa bind li tax ma ne le registre n'est pas signé par l'officier d'état civil ni le juge de paix kuñ fa bind baaxul parce que tëj nañu registre bi le 31 décembre mm-hmm. supposons que ñu tëj ko le 31 décembre mu des 5 yoo xam ne c'est pas rempli mm-hmm. feesul yow ñu bind la ci 5 feuilles cest à yow fekk nañ baare nañ registre bi le 31 le juge de paix dafay ñëw baare ko l'officier d'état civil signé ko ñu tëj boobu registre jàll ci beneen mm-hmm. léegi yow ñu bind la foofu en général ce qu'on appelle les actes fictifs ou les actes inexistants ça vient ça provient de ces de ces de ces sources ki mhm. l'acte qui n'existe pas dans le dans le registre l'acte qui renvoie à une autre personne dans le registre mhm. ou l'acte qui figure dans baal ma wala acte bi nga xam ne mi ngi nekk ci registre bi mais fekk na at bi jeex na mhm. tëj nañ ko le 31 décembre clôturer ko baare ko signer ko yow ñu bind la faneen foo xam ne loolu feuille des kese la donc loolu moom mooy le plus souvent actes yi nga xam ne dafay nekk les actes fictifs léegi nag pour loolu nag c'est à corriger mhm. xaw ma je sais pas mën naa ci am na question bu identique wala euh, corriger correction na waaw correction ki ki di correction di erreur mhm. te ci erreur laa doon ñëw mhm. souvent dañuy gis kaayu mel noonu ñu juum ci sant sàmb ñu def sàmb mhm. gis nañ ça peut paraître fou hein, gis naa benn famille benn nit boo xam ne nii moom kese yor santam ci famille mu mujj perpétuer te mu mujj continuer ci génération am mhm. ces erreurs est-ce que y possibilité ñu changer ko. Mm-hmm. parce que on dirait a beaucoup de gens yoo xam conséquence yu kii. Mm. parce que gis naa man benn nit boo xam ne da ne sama famille man dong maa ci sant nii. Mm-hmm. te loolu dafa nar continuer sët sëtaatam. man ak samay rakk bokkuñu yaay juridiquement. Mm-hmm. waaw Nafi bind avec. IE nekk Nafi Satou xam naa dañu koy laaj rek mu wax. mbaa sa soo fàttewuñ double V bi comme comme comme. waaw <laughs> day am c' est mm. différent de ce qu'il euh, ce qu'elle évoque mooy euh, les actes fictifs mm-hmm. dafa am ce qu'on les actes qui comportent des erreurs pour mm-hmm. pourquoi erreur matérielle parce que Moussa moo ko doon bind mm-hmm. bind au lieu mu bind saw avec W mu bind soo alors que kooku ay rakkam wala ay magam ñoom saw avec W juridiquement ñooñu bokkuñu yaay ak papa oh. juridiquement bokkuñu yaay ak papa ñooñu c'est des actes yoo xam ne dañ koy rectifier dañ koy loolu la ñuy wax la rectification d'erreur matérielle. ça se da ngay bind requête da ngay bind requête qu'on appelle requête au fins de rectification d'erreur matérielle. acte bi nga xam ne moom moo am erreur boobu si sàkk par exemple su nekkee ni si sa yow sa acte la dañ ciy boole acte bi. sa acte pap par exemple sa pap comme j'ai dit saw la sant am na W mm-hmm. nga indi sa acte pap pour prouver que ne yow sa acte pap W moo ci nekk alors que yow dañu omettre li ñuy wax omission u euh, kii mm-hmm. retranché ou omettre yow nga indi sa extrait pap pour wane ne sa pap dafa am saw mm-hmm. indi sa copie littérale indi sa copie littérale këyit la boo xam ne da koy demande à la à la mairie maanaam moom mooy retra euh, euh, sa sa sa sa déclaration d'origine pour yow ñu xam ndax biñ lay déclare la ñu def ki la déclarer moo wax saw boobu sans W ou bien bi waa ji di bind euh, à la main xam nga extrait de naissance à koy bind donc mm-hmm. yegguñu sama waaj li mu doon wax léegi naan mm-hmm. ñëpp numérisé xam nga mm-hmm. yegguñu foofu donc bi mu koy bind à la mën na am ne foofu la fàtte sa W euh, bi comprendre nga bu boobaa dafay laaj nga indi sa copie littérale indi sa copie littéralu papa indi yow acte bi nga xam ne nee nga moom moo am erreur bi demander à ce que le tribunal corrige la erreur boobu lii conséquences yi comme ni nga ko waxee sànq conséquences yi mooy euh, tey boo toogee mara day taali euh, nga soxla pas mara day taali nga waaw mara day taali sa waajur génn àdduna mm-hmm. Mm-hmm. juridiquement mm-hmm. certificat d'hérédité boobu yow mënoo ci dugg tànk defoo correction bi ma wax léegi parce que dañuy jàpp ne yow kooku juru la parce que seen ñaari sant juridiquement c'est pas c'est pas identique, identique. parce que bu leen fàtte li ma waxoon l'état civil c'est l'élément d'identification de la personne loolu dama koy répéter ba ba émission bi di jeex c'est mm-hmm. important mm-hmm. deuxième cas bi mooy par exemple yow nga bëgg sa papa jox la nationalité mm-hmm. yow sa papa am double V yow amoo double V sa papa jurul la juridiquement. faw nga faw nga léegi sax les gens tout récemment am naa ci cas boo xam ne la dame a préféré parce que xam nga avec la loi de 2013 léegi la femme peut donner la nationalité. Mm. Euh, léegi dañuy dem jëli ji seen papier yaay pour am la nationalité si l' erreur n' est pas sur le sur le sur sur xam nga si erreur bi si papa ji la bokk. Mm. donc au lieu ñu corriger dañ fay bàyyi erreur sa kayitu yaay pour mu jox la nationalité non non je dis non je dis autant bi nga xam ne il est temps c'est vrai que ne parfois nit ñi. culture wu yeeg tribunal wàcc amuñu ko mm-hmm. mais moo leen di moom la ñuy décourager wala moo leen mais erreur la il faut nga corriger ko c'est ça que la loi dit j'ai da ngay def requête aux fins de rectification d'erreur matérielle boole ci kay euh, l'acte bi ki comporte l'erreur sa copie littérale sa copie littérale papa si l'exemple porte sur le père nga euh, sa photocopie pièce d'identité avec deux témoins nga yóbbu ko tribunal au moins ñu rectifier la parce que c'est une rectification simple rectification d'erreur matérielle mm. euh, soo permettre ma continuer si annulation avant may mm. annulation mm. avant ñu ñu donc loolu c'est le cas de rectification c'est le cas où l'erreur est euh, l'erreur matérielle ce qu'on appelle la rectification d'erreur matérielle loolu c'est c'est le cas boobu mooy cas erreur yi yi am ci tur wala ci sant yi l'autre cas mooy l'acte Euh, inexistant ou euh, fictif l'acte inexistant ou fictif boobu dañ koy annuler on annule l'acte on demande une annulation de l'acte parce que lu tax ñu ne on demande une annulation de l' boobu boo ko annulé wul imaginez vous nga dem ba nekk mag am si acte boobu nga xam ne baaxul si nga am pièce d'identité ci acte boobu nga xam ne baaxul si nga am passeport ci acte boobu nga baaxul ci nga am ay diplôme ci acte boobu baaxul ci nga defee lépp yow sa àdduna peut-être ba am 45 ans ba am 50 ans wala ba am 30 ans donc loolu moom moo tax ñu ne acte boobu il faudra que nga annulé parce que boo ko annulé wul dafay am une double personnalité juridique mm-hmm. parce que foofu noonu li li li li li procédure bi mooy dangay def une demande d' autorisation d' inscription tardive de naissance comme j'avais dit tout mm-hmm. maanaam xale boo xam dépassé na un an kenn mësu ko enregistré mm-hmm. dañuy retrouver wu dans ce cas parce que yow dañuy jàpp ne kayit bi nga yor comme baaxul mm-hmm. mësuñu la enregistré léegi bu fekkoon nga sakul de source waaw foofu laay maa ngi ñëw maa ngi ñëw par exemple euh, annulation bi c'est c'est important pourquoi annuler parce que yow déjà acte bi nga yor comme dañ leen c'est inexistant ou fictif mm-hmm. euh, acte boobu soo ko continuer yor bien que nga am ci li ma wax ne yépp nga bëgg def jugement d'autorisation d'inscription tardive de naissance pour am acte bu baax mm. boo ko amee comprendre nga ba pare yow déjà acte bële bul fàtte ne si nga am pièce d'identité ci nga am passeport xam nga mm. kon déjà yaa ngi deux personnalités juridiques qui sont mm. deux identités qui sont différentes comprendre pour éviter cela dañ lay wax vous annulez et vous faites une procédure de jugement d'autorisation d'inscription tardive de naissance annulation bi par rapport à ce qu'il vient de dire annulation boobu noonu boo koy def da ngay demander au juge mu defal une annulation nga indi acte bi indi un certificat de non existence parce que existé woo vous comprenez mm. indi la pièce d'identité des parent indi l'acte prétendu fictif maanaam act bi nga wax ne baaxul da nga koy dugal pour dire ci requête bi nga ne man act acte bi laa yoroon depuis ma naissance moom laa amee pièce d'identité moom laa amee passeport et cetera et cetera ba ma am 30 ans je veux que ñu annuleel ma ko pour am acte bu bees en général sax les deux procédures dañ koy def en même temps foofoo ñaari procédure ngay def mhm. la procédure d'annulation ak la procédure d'obtention d'un jugement d'autorisation tardive de naissance annuler parce que acte boobu c'est important nga annuler ko parce que am nga ci ay acte administratif mhm. euh, procédure de jugement d'autorisation parce que yow léegi mag nga dépassé nga un an une fois nga dépassé un an yi rek da ngay dem tribunal si xale boo xam dafa judd kenn mësu ko déclarer léegi une fois nga am jugement d'autorisation d'inscription date de de de de de, de naissance boobu ba pare léegi acte bi annulé nañ ko léegi le jugement d'annulation le jugement d'annulation danga koy yóbbu au niveau de la DAF la procédure existe na ñu écraser le fichier bi nga xam ne moom lañ la njëkkoon a euh, amalee pièce d'identité mm. ñu annulé ko defal la avec le nouveau ah, avec le nouveau ah, euh, ah, diplôme attendez ba diplôme mm-hmm. la plupart les actes fictifs erreur yi la diplôme di am mais les actes fictifs xam nga la numéro le numéro nit ki du figurer ci diplôme tur ak santam mooy figurer ci diplôme le plus souvent diplôme yi mm-hmm. ci erreur lay am erreur matériel yi la ñuy changer diplôme bu fekkee tour bi baaxul wala sant bi baax te mm-hmm. loolu tamit c'est c'est prévu que changement boobu am actuellement mais que ça soit mais que ça soi mu nekk erreur xam nga lu tax may préciser waaw moo tax ma ne que ça soit mu nekk erreur li ñuy wax les erreurs d'état parce que parfois bu dul erreur d'état ay ay ay ay ay ay ay ay numéro de registre loolu mun nekkul ci diplôme bu nekkee ci tur wala sant wala date de naissance yooyu c'est des c'est des c'est à pour les diplômes c'est à corriger loolu pour erreur pour pour erreur la mais mu nekk erreur parce que xam nga lu tax may préciser mu nekk erreur mm-hmm. y a des yoo xam dañuy am acte dañuy am acte naissance maa ngi ñëwaat ci ba tey ci jugement bi jàngee ko euh, am ci pièce d'identité dem ba am ci passeport dem ba am 30 ans ne dañuy jugement hmm. hmm. dem ba am 30 ans dañuy jugement dem nañu wuti benn jugement d'autorisation taf yëngal fële hmm. indi ko commencé dem ak acte dem commencé dem ak acte boobu fàtte nañ ne derrière amoon nañ des actes administratifs des pièces administratives avec l'ancien acte moo tax ma ne si c'est des erreurs dañ koy corriger mais si c'est pas des erreurs mu nekk ay jugement yoo xam yaa bëgg retrancher mhm. le juge du ko accepter euh, ku bëgg a changer turam quoi laa bëgg maanaam dem ba. <laughs> <laughs> dafa changement de tur. nga bëgg ko soppi nga bëgg ko soppi day am. mais am na am na ñoo xamante ne. c'est possible yoon may na ko. si ah, waaw. le changement de nom le changement de prénom. tour le changement de prénom est possible le changement de nom en principe a y a ce qu'on appelle l'huméabilité du maanaam sant moom. moo tax reconnaissance papa moo koy def yéen a ngi fàttali suñu waxtaan sànq. Mm-hmm. Mm-hmm. reconnaissance papa ma parce que nit ki bu xasee ba ne nii laa sant. sant mm-hmm. boobu du le principe du dañ mais exceptionnellement par décret présidentiel moo tax sant boobu mën a dañ. Ah, hmm. pour ma tënk pour ma tënk ko euh, le changement de nom y a une procédure pour ça. bon euh, man damay tënk samay question mais y a am na ay internautes yoo xam ne nii xam naa ne seen laaj ci amal na leen solo. Mhm. Euh, kii moom daf ne. ndax euh, pour demander euh, la réintégration dans la nationalité sénégalaise maanaam pour nga dugaat pour nga amaat nationalité sénégalaise d'après li mu wax. Mhm. mu ne ci fan ngay dem ndax ak yan document ngay yóbbu. mu ne ndax jéem na wër ay information sur le net mais gisu ko mën naa waxaat yeneen ñaari rek euh, rapidement waa euh, kii Omar moom dañ ne mhm. euh, ñu laajal ko ndax comme ça koo xamante ne bi dafa am 12 ans mhm. après ay këyitam réer naka mhm. lay def ak yooyu noonu euh, kii nii di euh, Papa Cissé moom daf ne mhm. euh, qu'est-ce qu'il faut faire bu fekkee ne dañu am moom cas bi mooy ne benn papa bu confisquer extrait wu de naissance su ses enfants ndaxte bëggul doomam yi daal di dem école ndax dafa divorcé ak leur maman cas mhm. boobu noonu mu fase yaay ji bëgg fase doom yi waaw hmm, comme fasewu leen de dafa bañ doom yi dugg école mu confisqué seen extrait de naissance seen këyit yi daal naka bu boobaa. <laughs> moom moom ça va waaw waaw <laughs> waaw kooku waaw bu mën naa la rappeler yeneen deux yi ma la. Ah, waaw d'accord kooku day day bokk même réponse ak ki wax ne mhm. dafa am 12 ans kayitab réer. xam nga li may faral di wax extrait de naissance kenn du ko photocopier. Mhm. extrait de naissance bu amee 3 mois 6 mois dafay caduc en fait mhm. dafay dafay expirer. donc donc soo amee soo amee act Euh, bu fekkee xam nga moo tax souvent damay wax les femmes xam leen fi ñuy déclarer seen doom. Mhm. boo demee fi ñu déclarer seen doom boo joxee les les les informations qu'il faut. nga joxe année bi joxe kii dañ lay seetal dans le registre pour te produire un autre extrait. donc extrait boo xam ne papa moo ko confisqué moom xanaa yaay ji dafa xamul fan lañ déclaré ay doomam. Mm-hmm. mais bu mais bu yaay ji xamee fan lañ déclaré ay doomam day dem au niveau de l'état parce que droit bi ci papa am pour am extrait noonu la ci am noonu la ci yaay ji am pour am pour am pour am extrait. te le l'enfant également c'est son droit pas xaale bi ñaata at. bu yaay ji dundul mais naka lay def su. bu yaay ji dundul naka la xale bi def li mu confisqué du mm-hmm. mm-hmm. wax nii xam nga l'extrait moom ak ak mariage ñoo yem dafay dafay dafay dafay caduc dafay dafay périmé comme ni nga koy waxee dafay mm-hmm. périmer su dépassé 3 mois léegi sax am na ñoom dañuy toléré ba 6 mois pour mm-hmm. yenn yenn service yi mm-hmm. mais su ko dépassé moom sa devient caduc da ngay dem outil du bu bees kenn du ko photocopier bu bees rek mooy moo mooy valable donc loolu boo xamee fi ñu la déclaré mu réer ak mu kii da ngay dem parfois nag dans les mairies souvent officier yi nga fay fekk bu fekkee dafa yàgg xam nga ñun kon fii suñu documentation yi mm-hmm. moom c'est pas bien gardé mm-hmm. donc ça peut être benn source de problème lay doon boo xam ne mën na nekk ñu ne la set bi dañu archiviste yi ne la set bi dama ko tayal mm-hmm. wala et cetera et cetera mais je rappelle également que c'est important que booy def déclaration loolu nii li mu wax li mu wax nii dafa am importance par exemple tey booy def déclaration la déclarant nay demande à ñu jox ko le volet 1 parce que dans le registre il ko a trois volets dafa am le volet un qui sera remis au déclarant maanaam yow mi ñëw def déclaration dañ lay jox volet un pour mu certifier que ne yow yaa ñëw def déclaration loolu j'en profite pour dire que même les actes inexistants yooyu wala parfois nga gis ne troupe diw moo ci ne ngeen ñaar ngay xëccoo ñu naan kii moo déclaré kee moo déclaré ku am volet 1 bi kooku moo def la déclaration donc booy déclarer demande à ce ñu jox la volet 1 parce que volet 1 bi pour déclarant bi la les deux autres volets benn vole bi trois bi moom mooy moom mooy moom mooy rester au niveau de de de l' état civil beneen deux bi moom mooy dem au niveau du tribunal parce que registre yi à la fin de chaque chaque année normalement le de paix dafa war a ñëw def Euh, séance de kii contrôle am après jël euh, ñu yóbbu le le registre le régistre au niveau du tribunal c'est pour que ñu am en double bu la mairie bi réeree nga am au niveau du tribunal. mais nag parfois suñu système d'archivage yi ça peut ne pas être des meilleurs ba nga xam ne parfois bu la mairie bi réeree doo am. doo am tribunal mais normalement registre bi nga am ci mairie bi à la fin de chaque année ko war a am au niveau de la mairie donc kii pour répondre par rapport à ça kooku moom. na dem uti ji ay na dem uti ji si kii bu demee dañ koy defaraat. d'accord borom réintégration waaw nationalité. waaw borom borom bi xam nga bon le code la nationalité dafa am deux deux deux deux deux critères. Mhm. li ñuy wax le critère de sang ak le critère de sol. le critère de sang mooy par exemple nga sa papa nekk. sénégalais wala sa yaay nekk sénégalais loolu yow tu de d'office sénégalais parce que sa pap mën na loo jox nationalité sénégal euh, nationalité sénégalaise am mhm. en tant mhm. sa la loi de 2013 mën na loo jox yi ba tey ñoo ko xeex dégg mhm. ba na jox nationalité doomam donc foofu moom loolu moom la ñu wax ne lien de euh, de sang nag bu fekkee fi la juddoo normalement même moom bu dul bu dul bu dul bu dul papam nekkul wala yaayam nekkul mais bu fi juddoo am nañ une obligation de déclaration au niveau de l'état civil mooy les étrangers nés au Sénégal mais pour mu def euh, par exemple pour revenir par rapport à ta dafay def ce qu'on appelle la demande naturalisation mm. la demande naturalisation mooy yow nga ne doo sénégalais mais euh, mm. fi nga nekk waa bëgg nga fi bëgg nga Sénégal justifier nga leen nombre d'années yi nga fi def. Mm. Euh, que yow bëgg nga acquérir la nationalité sénégalaise bu boobaa nag l'officier d'état civil n'est pas compétent c'est le ministère de la justice lay dem. moom mooy moom mooy am compétence pour def mm. pour foofu la ñuy defee la demande mm. de, naturalisation c'est comme les sénégalais qui sont à l'étranger qui sont les étrangers qui son à qui sont nés à l'étranger dañuy am fii euh, Euh, la pièce, mais ça ne leur donne pas la nationalité. Parce qu'avoir la pièce, l'acte de naissance de, au niveau de, de l'état civil, ne vous donne pas nationalité. Parce que la mm-hmm. nationalité, on le cherche ultérieurement. Mm-hmm. mais le, les principes mooy le lien de sol et le lien de sang léegi nag. chaque pays maanaam mën nga fi juddoo yore extrait ak lépp te doo sénégalais. waaw. gis nañ fi ñoo xam ne mhm. parfois dañuy yor sax pièce d'identité est ce que am na sénégalais ah ñi toog ci na sénégalais la sénégalais la parce que am nga carte euh, am naa certificat de nationalité am naa certificat de nationalité kon man sénégalais la am na am na xam naa ah. ko vérifier de comme <laughs> amul certificat de nationalité xam nga souvent dañuy amoon nationalité euh, euh, ku am ku amul certificat de nationalité amoo nationalité. waaw ouais, la nationalité se sa se prouve définit la nationalité voilà. se prouve par le certificat de nationalité parfois da gis nit ne la man kat. dama doon def par exemple si je parle ñun concours juridique yi ñuy def ba mm-hmm. fa da gis nit ki ñu ne la extrait de naissance ñu waat ne la certificat nationalité mm, les gens man nan la ñu mën a laajee extrait de naissance après laaj ma certificat mm. mais mm. juridiquement c'est pas identique am na ñoo xam yaakaar nañ ne bu ñu amee carte rek am na sénégalais la am nañ nationalité normalement nag bi parfois bu ñu xoolee dañ lay laaj nationalité waaw parce que moom mooy li ma wax rek étranger bu nekk Sénégal juddoo fi la loi dafa ne mun nañ ko déclarer am na obligation sax de déclaration mm. fii mais ça ne doon donne pas automatiquement le le le, le la nationalité nationalité c'est une autre procédure bañ nañ ko ba le code la famille ak le code la nationalité n'est pas la même. daa am ay formalités yu particulières. effectivement ah, su leen neexee ñu ñëwaat ci national parce que c'est plus large en fait. parce que man damay dégg souvent day am sax ay campagne mooy euh, n'est-ce pas mooy ñuy woowee apatride. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu amul nationalité. ñu amul nationalité. Mm-hmm. te pourtant am nga kon kon maanaam. procédure dinañ ko jagleel waxtaan comme niñ ko ko segmenté pàccal ko nii. nationalité dinañ ko pàcc pàccal. double nationalité yeeg ak yooyu noonu yëpp dina ce sera l'occasion ñu leeral ko ci ci jotaay yooyu. waaw nationalité moom c'est un c'est un débat. c'est un débat waaw mm. c'est un débat bu yaatu ça n'a rien à voir avec les déclarations de naissance c'est une mm. autre procédure comme j'ai dit tout à l'heure donc qui permet à la personne tey soo amulee soo comme Moussa ni mu ko waxee léegi soo amul certificat de nationalité mën nañ jàpp ne du sénégale sénégalais bien que nag euh, euh, comme cas bi bi bi bi qui pose question bi li mu soulever moom euh, je pense que j'ai décrit la procédure au lieu que muy dem au niveau des centres d'état civil il mm. va la de la justice pour demander la naturalisation Aïcha Euh, tey nag mas euh, Nadim Couture mi ngi Colobane gërëm ko bu baax moom euh, laay ci Pa Moussa Mm-hmm. da ngay fay wala. oui oui envoie-moi la facture. d'accord que wala féministe nga bu ah? ah? ah, a yaa ngi yaa ngi naal yaa ngi non yaa ngi fay sa ba ñëw ba. aussi. Euh, ak waa ragal. voilà ma dinaa ko jotuma ko kale damay bañ waxtu yu xoj ñu mais laay mi ngi kolobaan moom gërëm ko bu baax moom ak secrétaire am Khadija mm-hmm. di euh, féliciter aussi comme ci état civil la ñu doon wax moom euh, moo nekkoon ancien euh, officier bu état civil bu euh, Grand Dakar Juliette Lopez. Mhm. gërëm ko bu baax ndax retraité na mais teewu liggéey bu am solo ba nga xam ne amal na ko fa ña fa des nag di leen ñaanal ñu yeggaleeg jàmm rek ba maax ak jàmm ñu dikkaat ci leen. jàmm ak jàmm maam Khady. waaw man xanaa rek di rafetlu. xam-xam bi nga xamante ni bi jot na fi wàcc macha allah day mhm. wane rek importance su émission bi parce que bëri na Sénégal yu ñuy nekk yu bëri yoo xamante ne bi duñ xam lu ci loi wax mhm. donc c'est important ñuy euh, faral di dugg ci pàcc bu nekk mhm. euh, macha allah chapeau à vous madame euh, Dieng mais sama xel day dem ci Modou Ndiaye ak ubbiteeg école bi ki nga xam ne mooy directeur Bambey TV en dehors nekk directeur bi c'est c'est en enseignant mais aussi tamit euh, buñ bu fekkee ne di ñaan rek ñu bàyyi leen euh, ku si mel ni du Ndiaye rek euh, nga xam ne nañ mën a delluwaat ci classe yi joxe mm-hmm. xam-xam mm-hmm. Euh, di nuyu également ñi nga xamante ni bi say su nekk ñooy toog di ñu seetaan di safo émission balance di leen wax rek jaajëf rek comme say su nekk rek Pam Ndiaye di indi rek invité yu am solo mm-hmm. di waxtaan ci lu am njëriñ daanaka foofu lay jeexale te itam di remercier gàmmu gi Euh, ñi nga xamante ne bii nii ñu ngi doon màggal guddik yonent bi ak ñi nga xamante ne bii ñoo fas yéene amaat gàmmuwaat. Mhm. Euh, Pam Moussa nag lam ñu digoon defu ko. def ko insister foofu ci gàmmu ah. dossier yu bëri woon dossier yu bëri bagaas yu bëri. woo leen ma dossier yu bëri. déwén ay dàq waaw mooy loolu daal dossier yu bëri la dossier yu bëri yi xamante ne ah, ah, ah kon kon man kon maanoon nañ Pape xale féministe la yëpp féministe la du ma ko laal jigéen sax rek garaawul Pa Moussa jërëjëf Pape euh, vraiment di remercier Fama euh, maîtriser sujet mu wax dëgg yàlla elle en avec passion mhm. mais leer na nañ li may faral di bañ di dugg ci jargon yoo xam ne kenn du comprendre mhm. elle a des termes simples clairs accessibles à mhm. tout le monde vraiment chapeau euh, di leen encourager parce que suñ société moo xaw a doy waar on nous dit même dañu am société matriarcat mais même matriarcat boobu sax problème la. Mhm. Mhm. parce que sa baaj xam nga lan moo tax ñu ne nijaay bi mooy doon. wa mhm. jarbaat bay doon. parce que wóoruwul yaay ji moo tax. xamul ne doomam bi mu jur dëgg dëgg dëgg. buur bi gëmul ne boo ko jur mais ki sëram jur moom. gëm na ne sër bee ko jur kon même euh, perception boobu sax mhm. c'est dafa xaw kii mais nag seen taxawaay wax dëgg yàlla mhm. am na solo yo noonte rek dina am ñu ciy déraper mais yow bokkoo ci nag mhm. <laughs> yow bokkoo ci mais am na ñoo xamante ne moom euh, dañuy déraper donc euh, di jaajëfal plateau bi yëpp di def comme am xarit rek ñaan njekk tamit parce que man damaa am sama xarit doomu ndey bu nekk ci fële ci Tambacounda di Zara Wage di ko ñaanal njekk ñu bàyyi ko Diop xasida di leen nuyu bu baax mais tamit euh, lu metti yàggul. Mhm. dina baax dina dina dina gën a yaatu incha allah ci ñoom euh, donc kon di euh, gërëm ñi ñu doon suivre ñëpp. ci réew mi ak ci bitim réew. Euh, yéen ñaar moom garaawul quoi tey da ngeen maa tendance. tey da ngeen maa tendance. <laughs> donc euh, d'accord asalaamaaleykum. merci beaucoup Pape Moussa merci beaucoup Mame Khady Diéry Fall merci beaucoup également Fatima Kidé. Mm. Euh, donc maître mbir maa ngi noonu je vous transmets les félicitations venant de haut cadre de l'administration sénégalaise. <laughs> merci beaucoup. Mm-hmm. merci ci félicitations yi kontaan nañ ci lool déjà ma lay remercier yow ma lay remercier yow Pape Ndiaye. Mm-hmm. pour la confiance placée à ma modeste personne euh, saa yu waxtaan état civil ne ma maître kaay <laughs> donc loolu je pense que euh, wóolute la rek la ñu jéem nañu en tout cas liñ ñu li ñu xaw a jàngal tuuti ay apprenti juriste lañ ba tey dañuy jàng mm-hmm. mais quand même ñu partagé ko ak population bi. Mhm. di remercier ñu ma bokkal plateau bi ñoo moom Khady Fatima Moussa mi nga xam ne dafa may sànni xeer saa su nekk. Mhm. mais maag moom ñoo far donc Pape Ndiaye kontaan nañ lool ci émission bi. Mhm. Euh, émission bi nag maa ngi koy may waa Rufisque. si vous permettez. maa ngi koy may waa Rufisque. Euh, yëpp nag particulièrement euh, chef de centre d'état civil bi nekk ci Rufisque Est ñu koy wax Tafa donc moom koo xam ne la. état civil daf ko intéressé ñu ciy waxtaan lu yàgg lu baree baree baree baree mhm. baree donc maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko sant du ma terminer nag comme ci gàmmu lañu jóge également mhm. di mooy émission bi également waa Tiwaawoon yëpp nga xam ne dama fa bokk léegi. ki mu ngi wax ma dem madame Ndiaye laa man Thiawane lay sëy ah. donc ñu <laughs> moom ji. yooyu noonu. mooy sant bi dinañ dem ba seen jëkkër yi la jox seen sant yi. Papa sa xam nga ni Ndiaye dàq sant yi <laughs> xam naa métti na dafa ne Fama Ndiaye yeggul ci Dieng yeggul ci Ndiaye donc c'est important mu yegg ci njaay bi donc maa ngi koy may euh, professeur Mame Ousmane Ndiaye di ko ndokkeel bu baax ci gàmm gi mm-hmm. Mm-hmm. actuellement mi ngi fees ñoo ngi wax amin ne leen amin <laughs> mu ngi jaayal bu baax a baax officier état civil aussi war nañ leen wax ñu góorgóorlu ci mbind mi parfois extrait ñu bind bindee ko bindee ko noo xam ne kenn du ko mën a mm-hmm. parfois erreur erreur bind yi moom waa ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci lancer un appel <laughs> comme Papa Ndiaye ni mu ko waxee rek nañu góorgóorlu bu baax ci bind yi l'erreur est l'erreur humaine on le comprend mais quand même ñuy lu baax parce que des actes administratifs moom loo ciy bind lu nekk war na mën a kii mais quand même ñu ñaan yàlla numérisation bi wër rek peut-être ba boobu ñëwee tamit mm. ak guichet unique bi ma doon wax xëy na état civil bi gën a am gën a am euh, jëmmal gën a jëmmal daal gën a mm-hmm. jëmmal kii erreur yi dootul amati mm-hmm. xëy na yenn faux yi dootul amati yenn activité fi dootul amati. Mhm. waaw yenn correction yi tamit xale yi dina mhm. dootul amati également aussi déclaration yi dina gën a yomb. Mhm. tamit parce que parfois nit ñi ñàkk xam lay doon. mais aussi parfois paresse lay doon parfois nekk di di di wàcc lay doon parfois li may wax naan euh, xale bi bu juddoo. son premier droit mooy le droit à l'enregistrement à la naissance damay faral di wax ne doom bu juddoo nga teral papa teral njëkke teral maam teral bàjjen hmm. waaye léegi xale bi moom loo koy teralee hmm. <laughs> xale bi acte de naissance rek nga ko mën a teralee loolu mooy son droit boo xam ne moom moo koy ubbul bépp bunt boo xam ne da koy fëgg ci àdduna hmm. donc nañuy xalaat ci teraanga yi ñu ciy xalaat xale yi mooy déclarer leen merci beaucoup Pape kontaan merci beaucoup maître euh, Fama Ndiaye wala Fama Dieng Ndiaye ah. Mhm. lay jaajëfal bu baax a baax. di gërëm euh, équipe technique bi nga xamante ne ñoo ñu doon gunge ci waxtaan bi kon di jox dig daje mardi bii di ñëw di am yaakaar ni dig ñu gunge ci yeneen jotaay yoo xamante ne dinañ ci waxtaane waat lu jëm ci wàllum état civil jaa ngeen jëf régie marand leen antenne